barakatuhu ginnaaw ba nu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci ab yonenteem sayiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di sant sunu yaakaar tey ak ëllëg sëriñ tubaa xaadim rasul di ñaanal cheikh muhammadinil muntaqa sunu borom bi subhanahu wa taala yàggal ko fi lool te wéral ko ba liggéey bi nga xam ne am na ko yéene liggéeyal maamam sëriñ tubaa sunu borom kattanal ko mu eggale ko ci gën ngaa mat ak gën gaa rafet te ànd ko mboolem njabootu Serigne Touba gépp ànd ko mboolem taalibi Serigne Touba yëpp ànd ko mboolem ñi ginnaaw loolu ñi ngi nuyu mboolem waa jotaay bi di leen siyaara di leen ndokkeel bu baax a baax ci jotaay bu tedd bi di leen sant ci wuy si nga xam ne wuy si ngeen ko ci wote bu rëy bi nga xamne wonañ len ci mu melni da ngeen a jëfee li borom bi waxon ne yéen ñi nga xamne gëm ngeen yàlla ak bu yonenteem buñ len woyé ci wote bu jëm ci yàlla ak bu yonenteem na ngeen wuy ji ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuxiikum ila akhirih mu melni wote bi ñi len wo muy wote alquran karim di ci sargal alquran di ci njukkal ñooñ daara di ci feeñal lenn ci liggéeyu alxuraan ngir mbokk yi daal di gën a mën a xemmam alxuraan gën a mën a xemmam jàng alxuraan ak yittewoo ko loolu nag mooy sababu bis bi nga xam ne moom la bëgg cee njukkalaat ay dongo yoo xam ne dogal na ñi jaar ci bi ba wattu borom bi subhanahu wa taala loolu di lu rëy di gu di ngëneel lu màgg màgg loo xam ne bépp jullit yell na mu daal di xam wàcc waayub jëmm joojo wàcc waayub alxuraan wàcc waayub jëmm yooyu nga xam ne ñoo koy jàng waaye xam wàcc waayu barab bi loolu moo sabab bis bi ñi daal di koy woote bi ñu ko wootee nag woote bi kon ci lislaam la tàmbalee ci lislaam la yam mu mel ni bi nga xamee ne woote nañ ko it mbokki jullit yi xam nañu li sabab woote bi te wane nañ ci seen yitte ak seen pas-pas ak seenu bëgg moo tax mbokk yi bàyyikoo nañ fu nekk dal di ñëw ngir fekke si jotaay bu tedd boobu xëy na kàddu gi dañuy ñëw ngir dalal lenn ci kilifa yi nga xam ne ak ci mbokk yi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte ngir daal di ñëw fekk si bis bi xëy na bu ñu leen daralee rek. si sëñ Maodo Gueye mooy ñëw sëñ Maodo Gueye mooy ñëw. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci béréb bu tedd bi di leen dalal it ni nga xamee ne noonu la sunu sang bi daan daralee weeru tedd wi mooy yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi alan wa shaalan wa tarxiban bila adad di leen dalalit ni nga xam ne noonu la daan taggee alquranul karim yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xablu kunta tabibi yow téerab borom bu tedd bi yaay sama xarit yaay sama soppe tey yaay sama docteur kon ñu ngi leen di dalal di leen jox seen wàccuwaay xëy naa dina ci ñëw incha allah dama nekkoon di wax ne kàdd gi dañu koy jël ngir présenté lenn ci mbokk yi nga xam ne bàyyi nañ seeni yitte ngir yàlla ak mbokk ak kóllëre ak alxuraan kon mbokk yooyu bu ñu leen jàllalee ginnaaw bi ñu joxe waxtu borom bi subhanahu wa taala door a ñëw daal di bi incha allahu rabbi mbokk yoyu nag dañ ciy jiital ki nga sama mag la ñu bokk lépp mu teewal fi sama mag di sama xalifa sëriñ Jili Mbàkke Mahmoudan ah, yebal rakam Cheikh Mahamadul murtada mu daal di bàyyi ko ba Touba dal di ñëw xëy na fan yi yëpp ay yitte moo ko jàppoon ndax dafa imam la ca Ndakaaru di fa jiite waaye fan yi xat-xat yi moom damay toog Touba ba keroog sa bis bi jàll ma door a continuer door a dem Ndakaaru mu wàcc ay yitteem dal di ñëw teew teewaayu boppam dal di teew teewaayu sunub xalifa mooy Serigne Jili Mbacke ibnu Serigne Mahmoudan Mbacke mi nga xam ne mooy sunu mag fegook sunu mbokk di sunu xarit ñi bokk lépp ndax ñoon ñaari kër yi ñoo ñu seq di suñu bunt ci sëñ Touba muy kër sëriñ Mbacke Kajoor ak kër Cheikh Ndumbe ñi fegook sunu mbokk ci lépp di sunu xarit di sunu wëllëre at mu jot mu bàyyi ay yiteem dal di ñëw teew mooy Serigne Khadim Mbakke moom Serigne Abibu Mbakke moom Cheikh Ahmadou Ndumbe Xabaan mi ngi nii teew yàgga teew yaakaar naa waa daara ji miin nañ ko dafay ñëw sax bu dara xew day ñëw ci bis yi at yi ko taxawal yëpp day ñëw ba ci jàngi kaba yi sax dawu ko tardé kon loolu kóllëre gu rëy rëy la ñu ngi koy dalal bu baax a baax di dalal sëriñ Cheikh Mbakke moom it di mbokkam di doomi Serigne du xaban Mbakke Kër Magay Ndaw ya naa mbokk yi min nañ ko ndax yàgg nañoo ànd ak moom mu nekk seen kilifa ca xelkom ja di leen ci wa at mu jot kan tey day mel ne teew na moom sëñ Cheikh teewu teewaayu waajuram ak mboolem mbokk yi ñëpp ginnaaw loolu ñëw fekk si fi nag seeni mbokk mooy sëriñ jil Abdul Qadir Mbàkke mi ma feggoon di sëñ jil Abdul Xaadir Buso xam naa Mbàkke dàq Buso moo tax ma juum sëñ Abdul Xaadir Buso mi ma feggoon di doomi sëriñ Baaxir Buso moom sëriñ Mbàkke Buso moom it di sunu xarit di sunu wëllëre di kenn ci gox bi nga xam ne ñun ñii ñëpp moo ñu dalal ci gox bi moo fi sunu kilifa mo fi sunu njit te moo ñu xamal liy gox bi ak li fiy dox kon suñ jili ñi ngi lay dalal bu baax a yow sa biram nga ñëw daara ji sa daara la ñooñ daara ji xam nañ ne daara ji sa daara la kon ñi ngi lay dalal ak di dalalit it sëriñ Moustapha Mbacke moom di kenn ci ñun di suñu mbokk di suñu lépp ñu bokk lépp moom it mu yor daara ci yaakaar naa ñu bari miin nañ ko mook sëñ Mbàkke Abdourahman ñoo bokk lépp muy rakkam mu bàyyi ay yitteem moom it euh, daara ji daaraam la kon ñii dañ ko fee fekk si fekk fi sëriñ Abibu Mbàkke mii di doomi sëriñ naa Tawa ñëpp xam ko moom it di setu si Ahmadu Ndumbe ñëw dal di feggoog sunu mbokki sëriñ daara yi ñii nga xam ne ay sëriñ daara lañ ñoom it bàyyi seen yitte tëj seen i daara dal di ñëw ngir xam ne daara ju aye daara yëpp ñu aye ñoom sëñ Baye Modou Gueye ñoom sëñ Saliou Sow ñoom Oustaz job ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen dalal ak jàmm di dalal nak mbokk yi nga xam ne ñoom it seen dal di ñëw nak nag dama ciy jiital ñi nga xam ne seeni doom dañuy tari alxuraan seeni dal di wattu alxuraan ñi bàyyi seeni yitte dal di ñëw ngir fekk si seeni doom ngir njukkal si ko waaye ngir ngir feeñal seeni mbégte ci jëf ju rëy jooju nga xam ne jëf nañu ko di leen xamal ne am ngeen lu rëy tey seen doom suñ borom takkal na ko garaat gu rëy garaad goo xam ne bu toogee ab yonente mu wermaal ko ngir alxuraan ji dina ci dënnam bu toogee ki nga xam ne moo yilif jamono di xubbu samaan mu warmaal ko bu toogee wàllu wi gën a rëy ci àddina mu dal di koy warmaal ndax li nekk ci dënnam firnde bi rek sëñ Basiiru leeral na ci tuuti ndax sëriñ bi ci njaareem dafa mos a woo benn tuut tànk tuut tànk ba ñëw di daw mu yónni ko muy daw mu daal ko woo ba mu ñëw mu ne ko ba liggéey ku la mën a yónneeti ci àddina ku mu mën a doon bul daw ndax li ne sa dënn ku mu ne ci dënn waruloo daawal kenn te moo di alquranu karim kon seen doom takk na garaat goo xam ne ëllëg yowmal xiyaam yéen ñii di ay waajuram suñu borom dafay ne takkal ay médaay yoo xam ne ay mbaxana yoo xam ne moom lañ leen di solal foo nga ne fu ngeen jaar ñu xam ne ñii dañoo am doom ji mokkal alxuraan moo tax ñu am garaat gu réy gu toll nii garaat googu nag man ngaa moom àddina la ci biir te du tax nga am ko garaad googu nag lenn rek moo koy maye góor góorlu ci te yar ci sa njaboot tam te boo ko ci yëru sax ëllëg mu yey la sëñ Basiir wax na ko waqifuhum innahum mas'uluuna alxuraan ko wax ku ci nekk danañ na taxaw daal di lay laaj doom ji la sa borom joxoon ndax li sa borom namoon ci yow def nga ko ci moom ak lim la ci digaloon def nga ko am déet kon yéen tey day mel ne tontu woowu ak lay woowu borom bi subhaanahu wa taala jàpp na la neen ko kon sant leen ci bu baax a baax ñu ngi leen di dalal ñoom ñi nga xam ne ñoo di ay waajuru sëriñ Xaadim Diouf jóge ba fële ci njaxate ndax moom fa la jóge ñëw ci daara ji di jàng si bi mu ñëwee man maa ko dalal ba yàlla defal ko tawfiix yàggut ci daara ji li mu def ci daara ji ab diir bu néew la matul sax ñeenti at wala ca lay toll yàlla dogal mu daal di watt alxuraan alxuraan nag xaas la maam suñ borom moo koy jagleel ku ko soob nit mën na jàng fukki at te du mokkal alxuraan yaakaar na ñun ñi ñëpp ci ay daara lañ yaroo te nekkoon nañ ci ay daara ñoo xam ne ñoo ñu njëkk daara te n niñ daan sonn la ñuy sonnee te yàlla dogal na wattuwuñ téere borom bi kon wattu alxuraan suñ borom moo koy jagleel ku ko soob nit man na mujj ci bërepp daal di wattu alxuraan ndax ké mu fegolé it di Serigne Xaadim Fay nga xamné yàlla dogal na momit mu wattu alquran momit euh bokk ci ñi mokal kon momit yagul ci bërepp bi way yàlla dogal na it mu wattu alquran te am nañu ko fi ñëk ño xamné wattu guñ alquran kon nak loolu it borom bi mo koy jaglél ñomit ñi sant seeni mbokk yi nga xamné ñomit bayé ko nañ ci it mu jëg mu dëkk dakaru ay mbokkam it dëkk bi di ci cosaanam dëkk bi di ci cosaanam muy doomi dëkk bi kon mu doomi dëkk bi la dëkk bi cosaanam la mu bàyyi lépp daal di ñëw yàlla dogal ba mu wartu téere borom bi subhanahu wa taala ay mbokkam ñoom it daal di bàyyi seen yitte wane seenu bëgg ngir daal di ñëw fekk si jotaay bu tedd boobu ginnaaw loolu it ñu ngi leen di sant di leen dalal yéen di dalal kenn koo xam ne day kenn ci ñun di suñu xarit di suñu soppe nekk fii ci dëkk bi toogal fi maam Cheikh Ibrahima Fall ja yar fi ay ndaw ñu bari te Nek kilifa di sunu xarit di sunu soppe di sëriñ sërif njaay mi nga xam ne moo fi toog toogaayu sëñ Moussa Rahmatu Njaay sëñ mi ci jotaay bi ànd ak rakam kon sëñ serif ñi ngi lay dalal ak jàmm yaa ngi mbooleem njabootu sëñ Moussa Rahmatu gi yéen da ngeen di samay soppe di samay xarit ndax seenu bëgg lu baax ak seenu amuk taalibe ndax da ngeen am cër ba noppi gisu leen seenu cër te nit bu amee cër yaakaar naa am na mbokk ma wax léegi ne sëñ Tuubaa nee na ngay wattandiku gis seen bopp ndax ku gis sa rek maam sun borom la loolu mooy mooy nit wërta gis boppam ndax te loolu day ci sëkk rek iblis gis boppam a tax ana xayru min xalaqtanii la waxoon min naarin wa xalaqtahu min tiinin rëy sa bopp gis sa bopp gu gën a passé gis sa bopp googu mënta am ànd ak mboolem ay rakkam te tey jii sax ñi di ci njukkal magam ju baax ja nga xam ne mooy sëriñ naar Njaay bokk ñi nga xam dañ leen di rendre hommage ci bi sëñ naar yàlla dogal mu bàyyi koo fi moom mii moo ko wuutu toog toogaay ba mu ba mu toogoon jiite njaboot gi di doxal lam daan doxal ànd ko mboolem ay rakkam ak i ak ak doomam ki sëtam ak mboolem ay taalibeem sëñ naar moom it yàlla na yàlla yokk yërmande bis biñ fi mujjee woon a def moom lañ ko dara jaaleelu moom lañ ko tuddee woon kon ñu ngi ko ci sant bu baax a baax te it ab xalifaam moom it xalifaam sëriñ naar di sëriñ asan moom it teew na ànd ak waajuram sëriñ sërif njaay mi nga xam ne mooy xalifaam sëriñ Moussa Rahmatu ak mboolem ay baayam ak rakkam ak i kon ñi ngi sant ci loolu bu baax a baax di sant it euh, ñi nga xam ne teew nañ sëñ Ibrahima Ndiaye sëñ Abdullahi njaay ak sëñ Cheikh Ndiaye ñoom ñëpp ak sëñ Yaquba ñoom ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ginnaaw loolu it di dalal kenn kooku sax duñ ko dalal moom dañ koy sant te di ko wax ne moom moo war dalal gan ñi mooy Serigne Malick Faye mais moom it di kenn ci béréb bi ndax ku tudd maamam tudd béréb bi mu xool liggéey maamam boobu ak bëgg-bëgg maamam boobu nekk ku sonn ci daara ji ba ma ko waxee bis bi bërki démb mu daal di ba ak rakkam sëñ Mor Baye Fall ñu xam ko ak mboolem njabootu sëñ Moussa gépp mu teewal leen kon ñi ngi sant sëñ Malick ci loolu bu baax a baax moom kenn la ci daara ji tey day jàmbaar ci daara ji xam nga nit samaam man na dañuy wax ne bu sama buñ ko doon gaynde nee na yow gaynde war ngaa xonqali bët ba ku gis ne xam ne nuroo gaynde lu am solo la ndax sa maam bu xalé lu bax lay njariñ la moy nga top ci fam jaaroon loolu moy tax suñu borom defal la ci njariñ ya waye bu fekke nak da ngay tok di wane sa maaxum mam sama mam mo fi defal li loolu lepp amul njariñ te jëfoo amul njariñ ndax suñu borom bam waxe waxee dafa fa ne walladina amanu wattaba'u surriyatuhum bil iman alaqna bihim surriyatuhum ñi nga xamne ay seud lañ xol seen mam fam jaaroon ñu jaar fa suñu borom da na leen yegge ci dara ji seen baay yoy ak seen mam yoy bañ jot cër ba seen mam jotoon kon ñi ngi lay jaajeufal yaa ngi moo leen ñi nga àndal ñëpp ginnaaw loolu it di dalal ñi nga xam ne nag bi ñu dugg si mbay beex wax na ko ñooy borom bis bi di suñuy mbokk ci pas-pas di suñuy mbokk ci diine di suñuy mbokk ci darat di suñuy mbokk ci dëkkandoo ñu bokk tund wi bokk dëkk bi ñu tànn ko xam ne yeyoo na bis bi amul ku ko gën a yeyoo ndax nitug diine la nitug lislaam la te kenn la ci ñun ndax ñun képp koo xam ne yaa ngi nekk fa ngay nekk di dundal lislaam rek def la ne suñ bopp ndax loolu la ñu yàlla digal loolu la ñu yonent bi digal loolu la ñu sëñ digal moo tax tan tànn ko jox ko bis boo xam kenn ngeen ko ndax nituk al la muy sëriñ Maodo Gueye bu njooj nekk fii suñu dëkkandoo fan yii rek fan yii rek daara ji nga xam ko taxawal kanam tuddee ko babu salam. biñ koy taxawal da am pas-pas bu ba rëy rëy taxawaay bu rëy ca yañ nga xam ñoom ko doon def dañu ñëw sax ne leen dem leen ngeen wutal seen bopp yaakaar naa pas-pas bu rëy la mu ñëw ak sama xarit nag waara suñu xarit sax di sunu soppe di kenn ci ñun bokk ci suñ jamiya yi nga xam ne moom la ñu taxawal mu lëkk le daale yi nga xam ne mooy commune Ndiéyène Sarax muy imaam Serigne magu Gueye moom sama xarit la sama soppe la tey soppe mboolem waa daara ji la soppe mboolem waa dëkk bi la ndax bëgg lu baaxam ak diine ñor gi ko ñor xëy na ñoom bu ñu seet ci ñoom bu seen kàdd jotee danañ lim délégation bi ñu àndal ñi ngi leen di dalal ñoom ñëpp ak mboolem ñi ñu di leen wax ahlan wa sahlan dal leen ak jàmm ñëw ngeen seen daara ñëw ngeen seen bërëb ñëw ngeen seen dëkk te yéen a ngi ci seen tool te seen tool bii moo di alquranu karim tool bii nag mooy toolub sëriñ Tuubaa bustaani kitaabullahi wa sunnati rasul la waxoon sama tool mooy téere borom bi subhanahu wa taala ak sunna si yonente bi sallallahu taala alayhi wa kon ñi ngi dalal mboolem mbokk yi sama baay yi sëriñ Mahamadoun Ndoy sëriñ Mahamadoun Diouf ak mboolem mbokk tey sëriñ Mahamadoun Diouf ñoom teel nañ fee jëf si ñëw nag fekk si waa dëkk bi ñoom moom bis bi seen bis la moo tax jàpp nañ ko dalal nañ gan ñi ñu ngi leen di sant ci taxawaay bi eh, ci bëgg gi ak yittewoo gi di dalal it mbooloom waa presse bi nga xam ne ñoo fi ñëw ah, di ko tàmbalee ci ki nga xam ne moo fi jiitu si mooy waa sunu daara TV te jóge fële ca ndakaaru ñëw dal ñu ngir jëlal ñu bi ak li ci aju nga xam ne lii mooy seen yitte mooy seen pas-pas mooy seen bëgg-bëgg te benn ko ko laajee lépp rek da koo def te yàlla rek tax jublu ci ak baax te lii la nekkee sëñ Murtada mii nga xam ne maag moom ñoo bokk lépp day ñëw ci moom di ko arrêté di fa jël waxtu wu nekk rawatina ci koor gi di ko dugal ci suñ seen ci seen daara TV muy site boo xam ne nag sëñ daara yëpp ak dong daara yi war nañ ci abonné wu loolu lu am solo la ndax ndax dëkk bi li ñuy bari barikat ak li li nga xam ne dañ koy yëkkate di ko tuddee ñun daara dañu ko njokkalele bariwul kon ñu loolu suñu mbir la ñëw fekk si fii nag euh, sëñ Mouhamadou Samb mii nga xam ne kenn la ci ñun te it mooy mooy mooy mooy suñu télé dëkk ñun dëkk bi nag mooy suñu tele moom ndax mooy suñu lépp biñu def luñu def moom moy ñëw jël ko moy jëw def lépp jëf ci yitte jo kawe kawe kon ñëw fekk ci ko comme moom moo dalal mboolem wa presse bép wa ties TV te njiit la serigne Mahamadou si di sunu xarit di sunu soppe di sunu lépp momit ànd ak wa ties TV jóge ba ties ngir ñëw dal di jël ci bis bi momit ñi ngi leen di dalal baaxa baax kon di leen sant ci ñëw gi di ñaan yàlla mu may ñu ñu tàmbali ko bismillahir rahmanir rahim niñ ko tambalé ta jéxalé ko ci alhamdullilahi rabbil alamin te lépp tambule ci yàlla jeexé ci yàlla ñi daje ci ngeerum borom bi subhanahu wa taala am ci barkeb alquranu karim wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu i question serigne mohammedou ndeysaan kóllëre lu am solo la mbokki yi kóllëre gu mohammedou don samanté ak serigne mohammedou Mbacké ci daara ja loola mooy dox batay tax serigne mohammedou si wàcc ay yitteem yépp ngir teewal soppeem xaritam léppam sëriñ Muhammadu yal na yàlla yi sàmm kóllëre gi ba ci karamu xadim rasul ci àjjana mbokk yi ñu ngi woyal liggéey bi jàllaat ci soxna Ayda ngoom ñu tàcc ko mbokk yi mu commencé téere borom bi subhanahu wa يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نصير مبين أن اعبدوا الله واتقوا واتقون يغفر لكم من ذنوبكم ويوقركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوقر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يسدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أنهم جعلوا أصابعهم في آثارهم واستقصوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويندكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul nee na yàlla moo ko moom te ku ko jaamuwul doo fa dugg sëriñ bi nee jaamu leen yàlla man jaamu lu kenn yàlla suma bopp laay jaamu yàlla ndax suñ borom suma woowee soo ëllëgee dinaa ko ni naa ak ngir wax naa ngeen dégg def naa ngeen gis bind naa bàyyi fii wasalaam jërëjëf ndeysaan mbokk mi mu ngi ñuy fàttali sunu yaakaar xayrimal Moustapha mi nu yaakaar fii ak ëllëg nee nañu jaamu ji buur bi te xam ni moom boppam lay jaamu nee na moom wax na bàyyi fi waaye def na bàyyi fi waaye jaxewoon na annonce ci sawdu sixaar yaa ayyuha shibyaanu laa tasta'jilu xanil hudaa واجتهدوا فاستهلوا بالحفظ والتلاوة فاتنبوا مجالس القوى خادم المصطفى كن كر كن أمول لغوا كن وي كنت نتي بين السخنة يا السخنة يا مسانة سخنة يا مسانة نتاتي كم بكي منيو نتاتي نيو سخنة يا مسانة بكي نتاتي كم أيديك منار دي أم كور دي رجال جابو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 كان لآياتنا هنيدا سأرهقه سهودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم هبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوسر إن هذا إلا قول البصر سأسليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تصر لواحة للبصر عليها تسعة وما جهلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يدل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء وما يهلم جنودا ربك إلا هو وما هي إلا سكرة للبصر كلا والقمر والليل إذا أدبر وصبح إساء أصفر إنه إنه يهدى الكبار نصيرا للبصر لمن ساء منكم أيتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلك شارككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع القائدين وكنا نكسب بيوم الدين حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة السافهين فما لهم, فما لهم عن التذكرة مهردين كأنهم همر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتي صحفا منزلة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يساء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته am na bis sëriñ bi di waxtaan ci bis penc ak teraay ga ba wax la booba ñëpp sama ëpp lañ wax bam des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu am sam xeet bi lay wax bu bis booba ba yonent sallallahu alayhi wa sallam dem aras su jootal su borom lam na ko si gil dem ramu bu jugee aras jëm fa taxawaay bari naa ko dogale fàttali ko ko bu antal karim annal qadimu dahran udimu fii kase naay bu salaar ram mam mama yoon ya a nu ma samba mbeke ne bi sëriñ waxee lii dafay ëkkatal xoo bopp daal na bu boobaa loxo si ku mu seddu da yendoo di fanaane fan tegeen si man wasa allah akbar allahu akbar xaadimal Moustapha kenn du moom kenn du xaadimal Moustapha mbokk yi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 المنافقون قالوا نتقر إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول الله والله يتقر إن المنافقين لكاتبون اتخذوا أيمانهم جنة فسد عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يحملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من يقول تسمع لهم كان موسم وثلاثة من كل تحت الحالي هم العدو فتركوا يحترم الله أن يفقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لا رؤسهم ورأيتهم يسدون وهم مستقبرون سواء هل ما تقفت لهم ولا تتقفل لهم لا يقبل الله لهم وإن الله الله لا هدي هم الفاسقين هم الذين يقولون لا تفعل على من عند رسول الله حتى ينفدوا ولله عسائن سماوات ولد ولكن المنافقين لا يقولون يقولون لا رجعنا إلى المدينة لا اخرجنا لا منها لا تلو ولله عزته ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Serigne Touba Xaadim Rasul mas naa tomb ñeenti tomb yu mel nii daal di ne benn tomb mooy benn tomb li ñaareel ba li tere ñetteel ba li nga bëgg ñeenteel ba li nga ragal daal di ne boo saxee ci liñ la loo bëgg am ko te boo dee daw si liñ tere doo gis loo ragal wasalaam. Ah, ñu tàcc ko mbokk yi ñu ko mu àggaat ñu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 إن تتوبا إلى الله فقد زغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة وبعد ذلك سهير عزي ربه إن طلقكن أي بدله أسواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات خانتات تائبات خابدات سائحات سيبات وابقان يا الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجات عليها ملائكة خلاص سدار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تهتزروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nee na ku seetun ci dara ndax mu lewet lay boole ak bari ci yu koy dooga mokkal wasalaam barke Cheikhil Qadim ñu wéyal liggéey bi doo ku ñu wax soxna naas fay ñu tàcc ko mu ñëw soxna naas fay mbokk yi ñu tàcc ko mu ñëw teral ñu téere borom bi subhanahu wa taala soxna naas fay ana soxna naas fay ñu tàcc ko mu ñëw mbokk yi quraanul karim la doon jàllale téere borom bi subhanahu wa taala ku def sa alal doo lakk ñu wéy ci liggéey bi jàll ci tari bi mbokk yi ñu jàll ci téere borom bi subhanahu wa taala ñu ngi woo ku wax Serigne Mor Faye mbokk yi ñu ngi woo ku wax Serigne Mor Faye ñu tàcc ñu ko mu ñëw waxtu waa ngi rot waxtu waa ngi dem mbokk ñoo ñu ku ñu wax Serigne Mor Faye ñu sàcc ko mu ñëw Serigne Mor Faye mu ñëw waxtu waa ngi dem Serigne Mor Faye Serigne Mor Faye waxtu waa ngi dem mbokk yi loo wax ci daara loo wax ci daara li xale bi tari loo ci wax ah kontaan. waaw sama xol dafa fees ba mënuma wax mënuma leen fay ñoom ñëpp. waaw yal leen suñu borom fay. ah loolu la kontaan naa lool. non sëñ Mourou Mbacke moom Ndiaye ji. wallaahi damaa bëgg ci moom barke sëñ Fallou. te sëñ Mourou Mbacke xamante ne dafa jàppale suñu a baax. dëgg la sëñ Mourou Mbacke kontaan bu baax. ak Moulay gone yi jàmbare li xale yi wax yéen ñii kenn du moom yéen rek gàcce nga la ma sëñ Mourou Mbacke kenn du yow Moulay jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sëñ mbokki kon ndaysan di jerejeuf serigne mohammedou Mbacké ibnu serigne Maamoudan yaangi taxaw ci annonce bour bi subhanahu wa taala ak ñing ko àndal mbokki xam ngeen ni qur'an al karim koro bi sa borom yónni yaronte bi ali salatu tabir biir makka dañu ko fas da'd ma tumar wa arid anil mushrikin ci bir makka mbokki mbiri tar lol ci bir makka ay mbokam ñoko ko waroon ni ko du wëy abu lahab baayam ja taxawoon ni ko du wéy naan ko tabban lakk yaa muhammad ali hëza jamaatana ndax lii moo tax nga ñëwoo tuskere ñeel na la yàlla nee na ak yonent bi nee na ak xale nga ak démb nga fekk yu ne ngir jàllale annonce buur bi subhanahu wa taala yónnee ko ay yóbbee ko ay fitna yu métti métti mbokk yi kon jàll ci sëriñ Mor Faye mbokk yi ñu tàcc ko mu tari ñu téere borom bi subhanahu wa taala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 فلما نبأت به بصره الله عليه عرف بعده وارد عن بعد فلما نبأها به قالت منن باك موسى قال نباني روقل إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تساهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح ومؤمن والملائكة بعد ذلك زين هذا ربه إن طلق كل أي بدله أزواج خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات طيبات عابدات صيحات سيبات أبطارا يا أيها الذين آمنوا خلقتكم ولكم نارا وقودوا الناس والرجال عليها ملائكة قلاة شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون لا يؤمن الذين كفروا لا تعتذروا اليوم بما تجزون ما كنتم تعملون والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nee na ndaw li ne mucc am njub la war di sàkku fu mu toll nee na mucc dana ko sàkk ci juróom njub dana ko sàkk ci juróom mucc war man lu mu ko war man war man ku mu ko war man luñ ne baax na nga def ko luñ ne bon na nga bàyyi ko te ñaan yàlla musal na jub bu tooñ bu fay ak tooñ bu ko cóor te lu dina nga nekk ci te ñaan yàlla jubal na wasalaam jërëjëf ñu tàcc ko mbokk yi ñu tàcc ko te ñaanal ko suñu borom def ko mag mu am solo ci barke Cheikh El Khadim kon ñu wéyal tuuti rek ci am luñ fi jàllale oustaz Maguette jàllale ko bu noppee amaat leneen loo xam ni sëriñ Mouhamadou moo ko war a jàllale su ko tout tànk yi dañuy demaat daal di jéem a xéwlu tuuti rek ndax bu ko defee seen biir yi xaw a dëgër tuuti. jërëjëf sëriñ Basirou ci ànd bi ak xale yi yàlla def leen ay mag ay magi lislaam bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu mel dafa am luñ fi bëgg a jàllale rek incha allah di sàkku ci mbooloo mi yëpp rek. kenn ku ci nekk mu def ñaan ñu ñaanal ko euh, maam Samba Yabe ak euh, Baye Moussa Ndew Fay yi nga xam ne moo ko téyeloon daara ji ba mu ëski fii macha allah ñu taxaw ci taxawaay bu rafet ñu jàngal leen faatiha fi xul wallahu benn ñaan suñ borom mu yokk fa ñu nekk yokkal leen ay xéwal bu baax a ak bépp jullit boo xam ne doon na ci jàpp te jiitu ji mu mel ni Serigne Modou mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi daf ci am mbokk yoo xam ne dañoo am taxawaay boo xam ne taxawu nañ ko mu jëm ci wàllu daara muy association boo xam ne dañ ko tuddee jàppoo taxawu daara jàppoo taxawu daara yi biñ ko sosee ne leen léegi yàggagul ndax ñu ngi ko sos dimanche bi ñu génn muy ñu takku ñoo xam ne dañoo toog xool xam ne daara julliti yàlla yi rek ñoo leen war a taxawu ndax daara yi li ñu jànkuwanteel ci ay jafe-jafe ci ay coono yooyu yëpp metti na te li nga xam ne moom la ñu toggoo ci liggéey bari na ñu ne nag ñoom seen participation mooy def association bi ànd taxaw daara président bi di Seyni Ngom mu nekk ca Congo vice président bi di Modou Faye di Modou Faye boo xam ne mooy euh, mu bay Alla Faye secrétaire général bi di professeur Daouda Ngom ki nga xamante ni moom mooy sens de la communication di Serigne Saliou Faye di kenn ci daara Muxaddamatul Xidma trésorier bi itam nekk Serigne Momadou Faye bu Baye Moussa Faye euh, moom mooy trésorier bi nga xam ne mooy denc wàllu koppar yi ñoom bi ñu taxawoo taxawalee association bi léegi yàggul waaye yàlla dogal na ñoo dajale enveloppe bi ngir jàppale ko Serigne Modou ci bis bi ni nga xamante nag noonu lañ bëgg a taxawoo daara yi ci Kaba li wër Kaba dañoo bëgg incha allah képp koo xam ne bëgg nga bokk ci biir kuréel googu bunt bi ubbeeku na nga bokk weer wu ne dañoo bëgg membre bu ci nekk barkeeloo 1000 francs su barkeeloo 1000 francs ñu dajale ko ba xam ne soom la ñu dem ci benn daara ci daara yi jox ko sëriñ daara ba ngir jàppale ko ca daara ji ñu liggéeyal ci alquranul karim ndax la yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ne na nekk benn ci juróom yi na nga nekk benn ci ñeent yi waaye bu nekk juróomeel ba jàngal alquran wala nga koy jàngale wala nga koy déglu wala nga koy bëgg bëgg koy jàng alquran ak di ko jàngale waaye bu nekk juróomeel ba di alku juróomeel ba nag mooy ki amul ci alquran yoon kon mu mel ni ñoom taxaw nañ taxawaay boobu ñu ngi ñaan itam sëriñ bi ak euh, kilifa yi fi nekk sëriñ Isaaqa ak mbooleem sëriñ Abdou Khadir Jili yéen ñi fi nekk ñëpp sëriñ euh, Maodo yéen ñëpp ngeen ñaanal leen Lini ñuy sumb ngir Islam ko lislaam suñu borom euh, dëgëral leen ci ba ñu mën koo wéyal incha allah kon loolu la noonu nañ ko ci jàllale incha allah su ko defee ñu jox sëriñ Modou moo yëkkati kàddu yi des balaa tout temps kii di ñëwaat. إن علينا بيانه كالابل لا تحبون القاجلة وتسرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناصرة ووجوه يومئذ باسرة تسن أن يفقل بها فاقرة كالا إصابة الحتت تراغيا وغيلا من وصلنا أن نقول فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك مساه فلا صدق ولا صلى ولكن كسب وتولى ثم سحب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أي يترك سدى أم يكن نطفة من منئ تمنى ثم كان خلقة فخلق فسوى فجعل من سوي جينس سكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sëriñ Tuubaa Xaadimu am doom man koo taxaw ba mu mokkal alxuraan te defoo ko suuf si amul lu ko fi jar daal door loxoom fi suuf wasalaam ñu tàcc ko nee na suñu yaakaar xadim rasul nee na am tu tànk war koo taxaw ba wattu téere borom bi subhanahu wa taala nga taxaw di ko seetaan ba mu ñàkk ko dara lu ko jar ci àdduna gisee ko mbokk yi ñu wax ni am na ay xéewal yu fi nekk xéewal yoo xam ne ñi nga xam ne dañoo am ngànt wala ñu bokk ci waa Baye Fall ñu jàll ci biir daar ji xéewal ci xéewal yooyu ndax yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتعون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا نو على سفر دا كان بوك نون ولا نو على سفر ولا كون يكون ني بوك يي جال كي ماي بوك نيو سيرن خادم فاي بوك يي سيرن خادم فاي تاج كو نيو سيرن خادم فاي العزيز الحكيم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 أولياءه لا من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالسالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاحكم ثم تردون إلى عليم والسعادة فإن بكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وسروا بها سألكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا قضيت الصلاة فأنتم في الأرض وابدوا من فضل الله واذكروا الله قليلا أنتم تفلحون وساروا تجارة نولون فدوا إليها واتركوا خيما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين والسلام السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته sëriñ bi nee na bis sëriñ Mbàkke Buso jullit bi boole juróom-ñeent yi mucc ci àddina ak àllaaxira ragal yàlla ku bon bàyyi fu bon lu mu bu mu wax lu mu mënul bu mu ko def lu mu moomun mu maandu ca wasalaam jërëjëf ñu tàcc ko mbokk yi ñu tàcc ko nee na sunu yaakaar xadim rasul ne woon na sëriñ mbakke buso radiallahu anhu ragalal yàlla te ragal ku ragalul buur bi mbokk yi kon loolu ku ne war na ko bay xel njàll ci liggéey bi زادك المنافقون قالوا نعتقد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يعتقد إن المنافقين لكاتبون اتخذوا أيمانهم جنة فصد عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يحملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يقهون وإذا رأيتهم توجبك أجسامهم من يقول تسمع لهم كان مصيبا وثلاثة يحسبون كل تهات الهلم هم العدو فتركوا يحترم الله أن يفقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لا رؤسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء هل ما تقفت لهم ولا تتقفل لهم لا يغفر الله لهم لهم وإن الله لا هم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفع على من عند رسول الله حتى ينفدوا ولله عسائن سماوات ولد ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا لأخرجنا الله منها لا تلو ولله عزته ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Serigne Touba Xaadim Rasul mas naa tomb ñeenti tomb yu mel nii daal di ne benn tomb mooy benn tomb bi mooy li la ñaareel ba li tere ñetteel ba li nga bëgg ñeenteel ba li nga ragal daal di ne boo saxee ci liñ la loo bëgg am ko te boo dee daw si tere doo gis loo ragal wasalaam. Ah, jërëjëf ñu tàcc ko mbokk yi ko mu àggat ñu tàcc waxtu waa ngi dem mbokk ñu tàcc Serigne Baye Faye mu ñëw tari ñu téere borom bi subhanahu wa taala

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو عليم حكيم وإذا سر النبي إلى بهد أزواجه حديثا فلما نبات به وأظهره الله عليه حرف بهده وأهرده عن بهد فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قالت نبأني عليم خبير إن تتوبا إلى الله فقد زغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بهد ذلك سهير أجي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات خابدات سائحات سيبات وابقان ياه الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجات عليها ملائكة خلاص شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ياه الذين كفروا لا تهتزروا اليوم إنما تجيسون ما كنتم تعملون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nee na ku mokkal alquran seetum ci yow dara ndax mu ñàkk lewet lay boole ak lu bari ci yu koy baaxi dooga mokkal wasalaam jërëjëf mbokk yi tàcc ko tàcc ko suñu borom def ko mag def ko mag mu am solo barki Cheikhul Qadim wéyal liggéey bi doo ku ñu wax soxna naas fay tàcc ko mu ñëw soxna naas fay mbokk yi tàcc ko mu ñëw teral ñu téere borom bi subhanahu wa taala soxna naas fay ana soxna naas fay tàcc ko mu ñëw فالفارقات فرقا فالملقيات سكرا حسرا أو نصرا إنما توعدون لواقه فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى سل في سلاس سهب لا سليل ولا يخني من اللهب إنها ترمي بسرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوصن لهم فيختصرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل يا ميس للمكذبين إن المتقين في سلال وهيون وفواكه مما يستهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تهملون إنا كسالك نجس المحسنين ويل يا ميس للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يا ميس للمكذبين وإذا قيل لهم اركها لا يركهون ويل يا ميس للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون والسلام ñoom ñëpp ak Serigne Moustapha ñoom ñëpp. waa kër Cheikh El Khadim ñëw leen jox ko addiya waa kër Cheikh El Khadim ñëw leen jox ko addiya waa kër Cheikh El Khadim Qur'an Qur'anul Karim téere borom bi doon jàngale téere borom bi subhanahu wa taala ci xale bu tuuti xale bu ndaw doon jàll aroos buur bi jàngale wu rafet ñuy gëstu warsu riwaaya warsu yëg nañ ni wow na ko kongu ñuy gëstu riwaaya warsu teewaay bi ñu ngi koy rafet bu baax sëriñ bi di la sant di la ñaanal yàlla la doon jàllale téere borom bi subhanahu wa taala ku def sa doo lakk bu ñëwee su borom incha allah mbokk yi ñu wéy ci liggéey bi jàll ci tari bi mbokk ñu jàll ci téere borom bi subhanahu wa taala ñu ngi woo ku ñu wax Serigne Mor Faye mbokk yi ñu ngi woo ku ñu wax Serigne Mor Faye ñu tàcc ñu ko mu ñëw waxtu waa ngi rot waxtu waa ngi dem mbokk ñoo ñu ku ñu wax Serigne Mor Faye ñu sàcc ko mu ñëw Serigne Mor Faye mu ñëw waxtu waa ngi dem Serigne Mor Faye Serigne Mor Faye waxtu waa ngi dem mbokk yi loo wax ci daara loo wax ci daara li xale bi tari loo ci wax waaw ah, kontaan. waaw sama xool dafa fees ba mënu ma wax mënu ma leen fey ñoom ñëpp. waaw yal na leen suñu borom fay. Ah, loolu la kontaan naa lool. loolu sëñ Mourou Mbacke moom daal yi. wallaahi damaa bëgg ci moom barke sëñ Fallou. te sëñ Mourou nga xamatoon dafa jàppale suñu gone bu baax a baax. dëgg la sëñ Mourou Mbacke kontaan bu baax. ak Moulay gone yi jàmbare li xale yi wax yéen ñii kenn du moom yéen rek gàcce nga la ma sëñ Mourou Mbacke kenn du yow Moulay jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sëñ Mbacke mbokk kon ndaysan di jërëjëf serigne mohammedou Mbacke ibnu serigne Maamoudan yaangi taxaw ci annonce bour bi subhanahu wa taala ak ñing ko àndal mbokk yi xam ngeen ni qur'anul karim koro bi sa borom yónni yonent bi ali salatu tabir makka dañu ko fas da'd ma tumar wa arid anil musrikin ci bir makka mbokk yi mbiri tar lol ci bir makka ay mbokam ñoko waroon ni ko du wéy abu lahab baayam ja taxawoon ni ko du wéy naan ko tabban lakk yaa muhammad ali haza jamaatana ndax lii moo tax nga ñëwoo tuskare ñeel na la yàlla nee naag yonent bi nee naag xale ngaag démb nga fekk yu ne ngir jàllale annonce buur bi subhanahu wa taala yónnee ko ay yóbbee ko ay fitna yu métti métti mbokk yi kon jàll ci sëriñ Mor Faye mbokk yi ñu tàcc ko mu tari ñu téer borom bi subhanahu wa taala sëriñ Mor Faye moom soxna Ndeye Sène ah, yaayam jàmbaar loo ci daara ji moom bismillah aouzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعده وعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني رواه إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تزاهرا هو مولاه وجبريل وصالح ومؤمن والملائكة بعد ذلك زين هذا ربه إن طلق كل عيب بدله أزواج خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات طيبات عابدات صالحات سيبات أبطارا يا أيها الذين آمنوا قد فسكم ولكم نارا وقودوا الناس والرجال عليها ملائكة قلاة شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تحتسبوا اليوم بما تجزون ما كنتم تعملون وسلام asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Tuba Xaadimu Rasuul nee na ndaw li ne mucc am njub la war di sàkk bu toll nee na mucc na ko sàkk ci juróom njub def na ko sàkk ci juróom mucc war man lu mu war man war man ku war man lu ne na nga def ko lu na nga bàyyi ko te ñaan yàlla musal na jub bul toll bul fay ak toll bul ko cóob toll na dund nga nekk ci na jërëjëf ñu tàcc ko mbokk yi ñu tàcc ko te ñaanal ko suñu borom def ko mag mu am solo barki Cheikh il qadim kon ñu wëyel tuuti rek ci am luñ fi jàllale oustaz magget jàllale ko bu noppé amaat leneen lo xamni serigne mohammed mo ko wara jàllale so defé tout tànk yi dañuy demat daal di jéem xéwlu tuuti rek ndax bu ko defé seen biir yi xawa deugal dëgër tuuti. jërëjëf sëriñ Bassirou ki ànd bi ak yàlla def leen ay mag. ay magal islam bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni dafa am luñ fi bëgg a rek incha allah di sàkku ci mbooloo mi yépp rek kenn ku ci nekk mu def ñaan ñu ñaanal ko euh, maam Masamba Yabe ak euh, Baye Moussa Ndew Fay mi nga xam ne moo ko téyeroon daara ji ba mu ëski fii macha allah ñu taxaw ci taxawaay bu rafet ñu jàngal leen faatiha fi xul wallahu benn ñaan suñ borom mu yokk fa ñu nekk yokkal leen ay xéwal bu baax baaxal baax ak bépp jullit boo xam ne doon na ci jàpp te jiitu mu mel ni Serigne mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi daf ci am mbokk yoo xam ne dañoo am taxawaay boo xam ne taxawu nañ ko mu jëm ci wàllu daara muy association boo xam ne dañ ko tuddee jàppoo taxawu daara jàppoo taxawu daara yi biñ ko sosee na rek léegi yàggagul ndax ñu ngi ko sos dimanche bi ñu génn muy ñu takku ñoo xam ne dañoo toog xool xam ne daara julliti yàlla yi rek ñu leen war a taxawu ndax daara yi li ñu jànkuwanteel ci ay jafe-jafe ci ay coono yooyu yëpp metti na te li nga xam ne moom la ñu toggoo ci liggéey bari na ñu ne nag ñoom seen participation mooy def association bi ànd taxaw daara yi président bi di Seyni Ngom mu nekk ca Congo vice président bi di Modou fay di Modou Faye boo xam ne mooy euh, mu Baye Alla Faye secrétaire général bi professeur Daouda Ngom ki nga mon ni sens de la communication di Serigne Saliou Faye di kenn ci daara Moukhaddamatoul Khidma trésorier bi itam nekk Serigne Momadou Faye bu Baye Moussa Faye euh, mon mooy trésorier bi nga xam ne mooy denc wàllu koppar biñu association avec les yagul waaye yàlla dogal na ñoo dajale enveloppe bi ngir jàppale ko Serigne Modou ci bis bi ni nga xamante nag noonu lañ bëgg a taxawoo daara yi ci Kaba li wër Kaba dañoo bëgg incha allah képp koo xam ne bëgg nga bokk ci biir kuréel googu bunt bi ubbeeku na nga bokk weer wu ne dañoo bëgg membre bu ci nekk barkeeloo 1000 francs su barkeeloo 1000 francs ñu dajale ko ba xam ne soom na ñu dem ci benn daara ci daara yi jox ko sëriñ daara ba ngir jàppale ko ca daara ji ñu liggéeyal ci alquranul karim ndax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne na nga nekk benn ci juróom yi na nga nekk benn ci ñeent yi waaye bu nekk juróomeel ba jàngal alquran wala nga koy jàngale wala nga koy déglu wala nga koy bëgg bëgg koy jàng alquran ak di ko jàngale waaye bu nekk juróomeel ba di alku juróomeel ba nag mooy ki amul ci alquran yoon kon mu mel ni ñoom taxaw nañ taxawaay boobu ñu ngi ñaan itam sëriñ bi ak euh, kilifa yi fi nekk sëriñ Isaaka ak mbooleem sëriñ Abdou Khadir Jili yéen ñi fi nekk ñëpp sëriñ euh, Maodo yéen ñëpp ngeen ñaanal leen lii ñu sumb ngir jàppale ko lislaam suñu borom euh, dëgëral leen ci ba ñu mën ko wéyal incha allah kon loolu la noonu nañ ko ci jàllale incha allah su ko defee ñu jox sëriñ Modou mu yëkkati kàddu yi di des balaa tout temps kii di ñëwaat. ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziare ñépp ñu ngi baal ñëpp teebalu ñëpp. di ñaan yàlla mu ba nuyu baa ñun ñëpp sëriñ Modou yow ak ñi nga seqal daara ji sëriñ Maodo mu ngi leen di nuyu mu ngi leen di joxal ak cant ndax taraanga bu rëy bu ngeen ko terale moom ak bokkam di nun ñëpp ndax bis boo xam ne bisu alquran la nga yëkkati bi nit ne ko yow laa ko yow laa dara jaale loolu du lu tuuti kon kontaan na ci gépp ak kontaante waaye noonu ñi ko dëkkoo itam kontaan nañ ci ndax noonu moo bokk teraanga ji nun nag dañu ubbi gi waaye dañ koy bàyyi ak sunu rakk incha allah alxaaji gi moom mooy joxe li ci des dañ ko ubbi bunt bi rek waaye kontaan nañ daal ba fa kontaan te yem yal na yàlla saxal daara ji yal na yàlla génn fi ay xafaas yal na yàlla génn fi ay xafaas yal na génn fi ay ñu ngi génn waaye yal na yokkute yokkute yokk waaye yal na nga fekkee njariñ li yal na yàlla jotale itam ci tuyaaba ji te walañ ko ñun ñëpp daara nag ba ne kii di yëkkati kàddu naa ci wax kàddu na ma ko daan waxee mooy man tànt bi su ma sañoon fee lañ ko doon tànti fee lañ ko doon tànti lu tax baru salaam waaw hmm. danga fee ay nit hmm. te ñàkku nit yàlla man loo hmm. ñu gis barab ba ak la mu na mu dundoo ak la laaj waaw kenn ku nekk boo demee jaayante yàlla jim cee bay sa waar comme nag taxaw nañ ko fii du tee man maa ngi demandé képp ku yàlla rotal moo xam politique nga moo xam looroon te am lu la yàlla dénk lo meuna jappale dara ngir mo solo ko ci dara ji laaj nag jàppale ci côté yëpp alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jere ñu jox. alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñi ngi leen di nuyu ci nuyub l'islam moy baatu assalamu alaykum wa rahmatullahi bég nan yal lebih. Kardugi bég kàddu gi ñuy yëkkati ñu ngi koy yëkkati ci kàddu yi kilifa yi li tax mbir mi dafa rëy lool ndax liñ ko du lañ koy xam ngeen ne alquran téere la boo xamante ni bii ci kaw suuf nit amul benn téere booy mën a yëkkati lu dul alxuraan ne téere bii mooy kàddug yàlla mu nekk téere boo xamante ni bii téere bu barkel la kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyatadabbaru ayaati sunu borom ne ne téere bii maa ngi ko wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy lu nu barkel ngir nu settantal ay aayam ma ne téere boobu képp koo ko tudde tudde woo ko lu tuuti dafa barkeel ba fu mu barkeel dafa barkeel ba ku ko gëm yàlla barkeel sa mbir yàlla yëkkati sa mbir xam ngeen ne ñoo ngi nekk ci weeru koor téere bii ba ko borom bi jëlee ci lawxul mahfuus mi ngi ko wàccee bi baytul izza ku ko wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril mm. moo tax mu gën ci malaayika yi ñu wàcce ko ci jëmm ji nuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk gën gimbindeef bi xayrul anaami ñu wàcce ko ci dëkk ba ñuy wax Makka ak Midinatul Munawara ñaari dëkk yooyu gën ci dëkk yi ñu wàcce téere bi ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetu yonent bi sallallahu alayhi sallam gën ci xeet yi ñu wàcce ko ci weeru koor wii nu nekk weeru koor mujj gën ci weer yi nu wàcce ko ci guddig laylatul qadr guddig laylatul qadar gën ci guddi yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne xeetam wi ñi ci gën mooy jàngkatu alquran xayrukum man taallama alquran wa allamahu ci gën ci sama xeet wi mooy ñiy jàngale alquran te di ko ahlul quran ahlullahi wa xaasatuhu ñooñ alquran ñooñu ñooy ñoon yàlla yàlla ne ne ñooñu laa ma kon lu rëy lu tol non? ku ko yëkkati tuddoo ko nit te it sang bi mi ngi koy wax léegi ne na juróomi ngi nii na nga bokk ci ñeent yi te bul bokk ci benn ba jàngalal alquran jàngalu ko déglu ko alquran bul ci alquran alquran ko jubo leen kon sunu borom képp kuy leble yàlla ñëwal ci marsab sunu borom bi mooy marsab alquran moy daara yi kuy leble borom bi subhanahu wa taala ñëwal ci ñooñ daara ndax tey kat non bi fexe na ba ñun daara ak ñooñ daara ñooy bàjjenu ñëpp ku bëgg wax lu bon rek ca ñooñ daara ngay dem loolu yi na koo kon ma lu rëy loolu nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala képp ku ko yëkkati tudde ko nit ko dara ba looloo tax mboolem njooj ak la ko wër ndax yéen dafa am ñett yu ngeen doxal ci mbir mi mooy yéen ngeen ne ndeke ñun ñëpp génn bu moonu takke wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu moo tax ngeen yëkkati bis bi tudde ko ñooñ daara xam ngeen ne daara ngeen ko tudde kon daara yëpp ay mbokk lan beneen bi ngeen doxalaat i innamal mu'minuuna ixwatun jullit ñi ñëpp ay mbokk lan ngeen dëggalaat ko ci tuur wi ngeen ko tur tudde moo sering mau Maodo ne kolom xolom sedd na hmm. yàlla rek mana moo am mën a am ak fay mboolem njooj bokk yi ñëw nan imaam yaa ngi fi chef de village yaa fi ñëpp teew si nan hmm. ngir bis bi kon xolom sedd na ci li ngeen ko tudde muy ñaan yàlla subhanahu wa taala ndaw ak ñi leen di jàngal ak seeni waajur ak ñi seen alal di jaayanteeg sunu borom ta borom bi mi ngi woo ana kan lebal borom bi bor man zal lazi yaqridu llah qardan asanan li nu fi yor lépp doon ko fi wàcc ana kan mooy perñe a perñe ca kërug ëllëg lebal yàlla bor lu toll noonu kun ko tudde kon dara kooka dara deseetu setul la lim la waroon a tudde lépp ak dara lim la waroon a jox lépp ci kaw suuf wanne na mbokk ak lislaam gi mooy mbokk ak diine gi mooy mbokk ak continue gi kon mi ngi ñaan sëñ daara yi ak ñi fi jànge ak ñi fi joxe seen alal ak ñi ko sopp yal ci loxo yal na yàlla yëkkati daara ji lii sëriñ bi wax daara jee nekk fële hmm. yal na yàlla subhanahu wa taala teg ci ba buñ fii dellusiwaat mu nekk ay étage yomb na yàlla yàlla man na ko ndax yàlla ne na ñooñ daara ñoom laa féetoo kon gudd gàtt dama mënewut wax hmm. te fasaaxaw ma te xam-xam bi bëriwut hmm. ñu dénk ma kàddu gi waaye ñi ma ko dénk lin yéene woon ak lin waxan ak lin bëgg ci bis bi ak seen xol sedd gi mu sedd yàlla xam na ko Yalna yalla yàlla Kontanan ci kontanan. loxo kontaan nan bokk yi kontaan nan yal na leen fayal sëriñ bi yalna yalla yàlla dolli sa wér yal na yàlla bàyyi ak sam xel yal na yàlla gën a barkeel daara ji barkeb alxuraan boobu yal na topp daara ji yal na la topp yal na topp ndongo yi yal na topp waajur yi ci jataay bi ci ak lin ma na wax ak ma lu ci jub ci suñu borom la lu ci dëng man mii nu yónni woon ma doon jottali kàddu yi te botuma ndaw te li may wax leerut nu jéggal ma ko yan yàlla jéggal sunu xol sedd na yal na yàlla subhanahu wa taala gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf kon joxe ko xéewal gi sëñ Maodo moo joxe ak leetar bii ma yor ñu yokk ko jox sëñ Muudu Mbàkke ci bis la bisub diine bisub alxuraan kon sëñ Maodo jërëjëf sëñ Maodo ne xolam sedd na nañ yegg micro ba ca moom moom itam yëkkati ay kaddu sëñ Maodo dañuy jox kaddu bi kon sëñ Maodo teewlu sëñ Maodo ci kaddu yi. ñu ngi di nuyoowaat di delluwaat di siyaara di ko toftal ci. kàddu yu njëkk yi nga xam ne moom la ñu yëkkati woon di ci dalal kilifa yi nga xam ne ñoo teewoon ci jotaay bi ak mbokk yi nga xam ne ñoo bàyyi woon seen yitte ngir ñëw fekk si jotaay bi ñu ngi toftalaat kàddu yi ci kàddu yooya di delloo nuyoo ak siyaara sëriñ Maodo Gueye mi nga xam ne moom la dippee bis bi ci wàllu kilifteefu góor ñi ki nga xam ne mooy marraine bi nag di sunu xarit sunu soppee soxna Zeyna Seen sëñ Maoda ñu ngi lay dellu di nuyuwaat di delluwaat di sant di la delluwaat di jaajëfal di ñaan yàlla kàdd yi nga xam ne yëkkati nga ko fi ña diglu ko te topp ko te jariñoo ko di ñaan yàlla it mu fay la yiw tànk ñëw yi ak yi dellu yi yépp mu defal la ko aw yiw te fayee la ko bés bi nga xam ne moom lañu la dippee sa cër la sag moomeel la ngir sa taxawaay ci diine ngir sa taxawaay ci gox bi ngir sa taxawaay ci dëkk bi ngir yéene joo xam ne am nañ ko ci yow lii lenn la rek ngir feeñal sunu mbégte di la xamal ne ku ñu bàyyi xel nga te nit bu ñu la bàyyi wutoon xel sunu xel du dem ci yow ba ñuy jël bis di la ko dagg di la ko eh, tuddee kon sant nañ la bu baax a baax ndax dëgg-dëgg amuñu lenn luñ ci réccu te am nañ ci mbégte mu kawe sunu njort ndax bisub diine moom danga koy jagleel rek delloo ko ci ñi nga xam ne ay niti diine lañu moo tax ñu tànn la xamal leen la daara ji sa daara la dëkk bi sa dëkk la ñi fi nekk say mbokk lañu ci anam bépp ñu ngi lay sant bu baax a baax di bég lool ci mboolem yéene yi nga am ak kàddu yu rafet yi nga xam ne sëriñ magu ak sëriñ bi nga xam ne moo doon wax ci sa tur yëkkati nañu ko muy kàddu yu mat sëkk kon ñu ngi leen des ñu ngi lay sant di leen sant ñoom ci sa tuur yow it di la jaajëfal bu baax a baax di wax na it kàddu yi nga wax sëñ mag wax ko te sëñ bi wax ko it ca béréb ba nga xam ne moo nekk fële di daara ju bees di la ñu tuddee Baabu Salaam xëy na it incha allah bis dana ñëw ñu jël bis bi defee ko fa ñaan suñ borom balaa ëllëga lépp jàppande bañ mën koo jël di ko. yóbbu foofa léeg-léeg ñu indi fii ndax lépp benn lañu te ñoo bokk benn bëgg-bëgg yi te it na ma yilifee foofa noonu laa yilifee fii moo yem sëkk ci man kon it yéene ji rafet jooju ngeen am a xalaat bu rafet boobu nga xam ne daara ji seen daara la am na sax ñoo xam dañuy tooñ ne daara ji moom xanaa waa njooje ko moom waaye dëgg-dëgg lii firndeel na ne sopp ngeen daara ji bëgg ngeen ci te it xam ngeen ne seenu seenu seenu moomeel la te it kàddu yi rek firndeel na ko ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm di wax ne bis bi nag ban la koy tuddee maanaam nga ñëw teew rek ñu xam ne ñooñu alxuraan teew nañ ci bisub alxuraan loolu rek liñ ci jublu woon kon addi ji nga yëkkati jox ñu ko jëmee ko ci bis bi na la wóor ne teguñu la ko woon lañ gënoon a jiteel ci yow muy sa jëmm ji kom nii nga teewee ndax doomu aadama li gën a fort ci moom muy temps muy muy muy muy muy temps jël sa waxtu daal di koy def ci béréb loolu amul lu ko gën a seer buñ ko doon fay amul buñ ko doon fay amul amul amul njëg yaakaar naa borom xam wax nañu ko ulama suuf yi nee nañu li gën a seer ci nit ki mooy waxtu nee na waxtu moom day jaasi rek benn nga dagg mbaa mu dagg la kon lu ci nekk rek bu nit ki jëlee ci waxtam dal di ñëw na la wóor na jox la li gën a rëy rawatina it nga jox ñu li nga xam ne moo tax ñuy woote muy alquranul karim li nga xam ne it nit mënuñoo jox lu ko gën nit mënuñoo jox lu ñu ko gënal te nit mënut ta joxe cër bu gën a tedd alquran karim kon ñu lay sant bu baax di ñaan yàlla mu fay la te defal la ci xéwal ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb alquranu karim ci barkeb weeru koor wii ñu ko woote ci barkeb seexul xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw loolu di dalal mbokk yi nga xam ne ñëwaat nañ fi ci ginnaaw bi nga xamee ne ñi ngi lim délégation bi am na ñu ñu fàtte am na ñoo xam ne suñu ginnaaw la ñëwaat kenn ki di sunu xarit sunu mbokk di sunu soppe di sëriñ Isaaqa Mbàkke mii di doomi sëriñ Fàllu moom Cheikh Mahamadul Bachir moom it mu dëkk fii ci njongeen ci daaram ji mu tuddee daaru minam tawfiix daaram jooja nag ak daaram ji ñoom la yemale taxawaay ba mu am foofa moom la am fii yéene jam am foofa moom la am fii jëf ju rafet jamay jëf foofa moom la moom la def fii ndax waxtu wu nekk mi ngi jékkate ay jéegoom di ñëw ci bërëb bi waxtu wu nekk mi ngi ciy soññi ay kàddam tey nemmeeku di xool liggéey bi fan la toll te lii firnde ci ne gën nii la ko ànde woon ak ñun ñi ngi ñaan suñu borom mu guddal fanam te wéral ko te it yëmu ci niko ko Cheikh Mahamadul Basir mi waxee addiyaam moo ci jiitu démb la yónnee jëwrinam Basiru ak mbokk yi taalibe yi ñu mu yónnee addiyaam mu dal di ñëw jiitu ci bis bi kon addiyaam moo jiitu ci bis bi te kon euh, mom ya naa du ko ñuy présenté ci dëkk bi te it du ko ñuy présenté ci tund wi ndax ñu baree bari xam nañu ko te it xam ci mom moom la sëñ Jiila Abdul Qadir bu ya xam ci mom moom la booleem ñi ñu bokkal tund wi te bokk moom pas-pas benn pas boobu li ñu am tey ñu ngi koy sant bu baax di bég lool ci ñëw gi di ko ñaanal moom i suñu borom guddal fanam te wéral ko ndax fa waajuram ya tegoon tànkam maamam teg fa tànkam foofu la teg tànkam kon ñu ngi koy dalal bu baax a baax te di ko gërëm di dalalit euh, sama mbokk mële nga xam ne dama ko fàtte woon mooy Serigne seex Fall nekk Serigne Daara ca Jol xëy na ko xaw ma ko war a fàtte waaye moom wër wëruma ko fàtte waaye liñ naan xel day fàtte moom ci suba la fi ñëw yàgg na fi boole ko nag buub waa daaraam ñu bari ca daara wala ñëpp ca daara ja ànd ak ñoom dal di ñëw fii loolu nag sama xol sedd na ci bu baax a baax bég naa ci bu baax a baax ñi ngi lay sant ci loolu di la ci jaajëfal di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñëwaat nañ ci ginnaaw sëriñ sa sëriñ naar jenn mi nga xam ne sunu xarit la sunu soppe la sunu wóllëre la muy kilifa di baax jóge fii ba ndakaaru dal di ñëw ngir yàlla ak mbokk ak xarit ak kóllëre ak bis bi moo ko yëkkati kon ñu ngi koy jaajëfal mu ànd ak euh, sunu xarit bëri soxna Kumba Ndaw ñi ñëw ñoom it dal di daj ay coono xam nga jamono ji koor geek tàngaay wi nga jóge fi ba Ndakaaru dal di ñëw loolu yitte la pas-pas la waaye yëmu ci ñi andi seen addee yu baree bari ngir ñëw dal di koy def ci daara ji jox ko ñooñ dongo yi jox ko yit waa jotaay bi ñëpp kon ñu leen di jaajëfal baax a baax di bég ci loolu di leen sant di ñaan yàlla mu defal leen ci yiw te fay leen ci barkeb Seexul Xadim di jaajëfal suñu alxaaji Yoro Gueye Male di suñu xarit sunu mbokkum daara moom it ñëw na léegi maa ngi koy nuyoo moom fii léegi maa moom ñoo bokkoon daara juñ jàngee mu sama xarit nekk fële ca léegi ca Nasru nekk fa imam di lépp mu ñëw bàyyi yitteem moom it dal di ñëw ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ginnaaw loolu di jaajëfal ñi nga xam ne ah, di dalal ñi nga xam ne ñooy délégation soxna Zeyna Seen soxna Zeyna Seen nag di kenn ci man xëy na ñu baree bari ñu baree bari ci ci ci ci ci jotaay bi miin nañu ko rawat nañ ñi ma seqal liggéey bi xam nañu ko ndax loolu pas-pasam moo ko ko may tey nag mu ñëw dal di ànd ak seen mbokk mi nga xam ne sëñ Baay Faye te nekk ci dëkk bi di suñu xarit di suñu soppe moom it mu dal di ñëw daal di ànd ak ñoom mbokk ci délégation bi xëy na sax li àddina looy def na rafet nit looy def na yàlla tax ba ma koy dippee bis bi xaw ma woon ne sax am na mbokk ci dëkk bi ndekk sëñ bii goroom la mosuma ko xam léegi laa koy door xam ci bi ndekk goroom la bi ñëwee ñoom ci moom lañ jaar ànd ak moom mu ñëw mu dalal leen loolu maa ngi koy door a xam ndax àddina moom lu rafet rek moo ci am te lu jiitu loolu man ak moom dañoo seq ak kóllëre gu yaatoo yaato ba nga xam ne ñu baree bare xam nañ ko tax dara waralu ko lu dul yàlla ak yonente bi ak bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa bëgg gi mu bëgg lislaam loolu moo waral bis bi ñu jël ko jagleel ko ko muy marraine bi ci wàllu soxna yi moom lañ ko jagleel moom soxna Zeyna Seen moom nag xëy na bu fi nekkoon mooy ñëwal boppam waaye nekku fi ay ndawam ñëw nañ te dañuy wax ne ndaw lu nekk dafay yor daraja yi ko ko yónni kon ñoom dara yi soxna Zeyna Seen lañ fi ñëwee moom nag li tax ma dëppee ko bis bi maanaam day day day day royukaay day àddina nit dafa jafe xam waaye nit léeg-léeg boo ko xamee ren ba déwén ba ma xamante moo ay at la boobaa léegi lu yàgg la ma xam ko mu nekk fële ca Maroc nekk ku baax xam naa ko seen mbokk yi dem naa ba ca këram ca Mbuur xam naa ko bu baax a baax kon maa moom xamante nañ muy ku baax nag daara jii day kenn mënu ko ci xam ngeen ne daara jii li muy rëy rëy xam ngeen nag sëriñ daara yi dañ koy dund donga daara di ko dund xam ngeen ne daara ci Bawol ñay jàngee ca daara ji day mënuñoo fay sax jàngalkat yi ku dajale seenu fay du ko mat waaye moom ci jëm boppam bokk na ci jëm yi nga xam ne dama leen a tànn daa am jëmm yoo xam ne samay nit lañ ma tànn leen ngir weer wu dee kenn ci ñoom dal di jaayante ci daara ji ku nekk ñii de ñii cinq mille ñuy jaayante ñii dix mille la ñuy jaayante moom weer wu dee musuma toog bala cinq te dix mille francs yi mu jaayante ci daara te moo ko sos boppam joxewu ko léeg-léeg le vingt-neuf la koy joxe léeg-léeg la koy joxe loolu lu rëy la ngir loolu moom la njukkalee man koo fayee jàngalekat yi nga xam ne ñooy nekk ci daara ji di jàngale loolu lu rëy rëy te loolu royukaay la boo xam ne ku ci nekk war ngaa mën a taxaw daal di roy ca loola daal di fas yéene ne weer wu dee man danaa sasoog daara lii ngir di ko njukkalee dongo yi di ko dimbalee dongo yi ci seenug dund di ko dimbalee sëriñ daara yi moom ne daa bokk jëm yi nga xam ne ba ma ko tànnee ba tey mustamanki am na ñoo xam ne benn fan lañ joxe benn weer lañ joxe wala ñaar ñetteelu am na ñoo xam ne ñetti weer bañ ko joxe ñeenteelu am na ñoo xam ne bañ joxe benn ñaareelu am na ñoo xam ne bañ diggee sax fawruñ joxe benn yoon waaye moom ba ba tey musta teggi tànkam ci loolu ma lay wax lii bokk na ci li tax ma jagleel ko bis bi ak bëggam xana ne lii li muy def ñor na ko moo tax ma jagleel ko bis bi bis bi nag dañoo tàmm ci ñun képp ku koy jagleel day fekk liñ ñuy def muy teel la duñ xool nit am-am bu ñuy yaakaar ci yow duñ xool nit cër boo am ci àddina bu fekkee am-am bi nga am li ñu nekk yitteeloo ko bëggoo ko du yàgg mukk bañ jël suñu bis di la ko jagleel bu fekkee yow dara ji nga am taxu nga gestu ñun sunu daara yii ak sunu béréb yii ak sunu alxuraan ji yittewoo sunu dongo yi du tax mukk ñu jël sunu bis dina ko def ndax amuñu lenn luñ ci dabi du alal du dara luñ ci dabi ku ñu yëg moom lañ ci def te moom daa bokk ci ñiy yëg yëg daara ji yëg lislaam xam mooy lan moo tax ñuy dëppee ko bis bi délégation bi ñu ngi nii maa ngi leen di dalal di ñaan yàlla mu fay leen yiiw tànk ñëw yi yéen ak tànk dellu yi ngeen jóge ba mbuur ñëw fekk seen mbokk mi maa ngi sant bu baax a baax di leen gërëm kon waaw kon sëñ sëñ ñu jox leen kàddu gi yéen ngeen ngeen wax ci ki am te di ñaan ngeen ngeen ngeen ànd koog ñun it te euh, ba ba kii bi rek incha allahu rabbi sam benn discours incha allah ñu wàcce wàccewaat kàddu gi ci moom mu tàggato ñaanal lahi taala wa barakatuhu liggéey bi tax mënutoon a teew ci bés bi muy liggéey bi nga xamee ne moo xew fële ca Touba te sëriñ Muntaxa yalla sunu borom yàggal ko fi wéral cëram dolli ko kàttanal sàkku ci isbul tarxiya te moom mu bokk ci kuréel 1 isbul tarxiya moo tax teewul fii wande ba tawféex gi wàccee mu jox ndigal rakkam ne ko na nga ak gi mu jaar ndondol jël ma man ak ñoom sunuy baay ñoo bokk ndey ak di bay Assane moom mooy denc suma mag bi nga xamee ne moom laa bokkal benn baay muy Ndey caw ñuy sant bu baax sëriñ Modou Mbacke ak kilifa yi nga xamee ne ñoom lañ fekk ñoom ñëpp kenn ku ne ñu lay jox sa wàccuwaay te di la ñaanal suñu boroom mi dara tawul ci barke weer wu tedd bi yàlla suñu boroom gën leen a kàttanal gën a guddal seen i fan te gën a wëral seen i cër ci barke Cheikhul Khadim ñuy siyaar bu baax ki nga xamee ne tamit mooy sunu sering mau Maodo Gueye di la ñaanal ci barke karim yaa xam la nga namm ca daara ja yal na ko sunu borom sottal te muy taw feexu ko kaba gépp te ngeen fekkee njëriñ li ñuy sant bu baax tamit ci kàddu njaboot gi sëñ Modou ndax nit ki la nga amul pas-pas ca la nga dul yëngutu kenn du la fa ba la fay dugal. Ah, ak ñi nga. njabootug Modou Lamine di borom këram sant nañ ko dafa góor doon jambar ci mbokk doon jambar ci l'islam doon jambar ci liggéey muy ñett yi nga xamee ne ku mu rek ci kër Serigne Touba rawatina julit kon li soo ko defee. ñoom ñëpp barke weeru tedd bi ñoom ñëpp ak gi mu àndal yëpp sëy na ba mënatu fay di ñaan te di la gën ñaanal bu baax baax ci barkeb Cheikhul Khadim yàlla suñu borom gën a kaweel liggéey bi te ñu la koy gën a dénk nag suñ ko la ko dénkee rek dénk nañ ko dégg na la suñu bopp ñu yeesluwaat bu baax ci kàddu yi du gudd nag ndax soo àndee kilifa. teewaay bi ñu koy rafetlu bu baax sëriñ bi di la sant di la ñaanal yàlla. waratoo yëkkati kàddu waaye kàddu présentation yi rek laa wa doon yëkkati ma ciy tuub lépp lu ci dëng rek waaye li ciy des dañ koy jox suñu baay Assane Ndour mi nga xamee ne euh, moo fi nekk. nekk suñu kilifa nekk suñu sëriñ di nu xiirtal ci mbokk gi dinu nu ci diine ji barke Cheikhul Khadim. barakatu ñu ngi nuyu bokki taalu yi fi teew yépp bokki jullit yi ak sëriñ si suñu yaakaar jébbalu ci ñoom sëriñ Modou ñu ngi lay nuyu nuyu bu jullit nuyu taalibe nuyu lislaam muy asalaamu aleykum sëriñ Modou kontaan nañu suñu xol sedd na sant nañ la gërëm la ndax li am solo rek mooy li mooy sëñ Tuubaa mooy seen maam ah ñu ngi nuyu ñu fi teew it sëñ Isaaxa Mbàkke mu ngi ni jàkkaarloog man barki démb rek li koor gi métti métti fekk na ma tuddum muy sama doomi baay ma di sant bu baax ah sunu kilifa sëñ jeli bu soo ngi nii toog ak mbooleem délégation yi fi nekk rek Mbàkke Mbàkke bu soo ngi toog te lépp sama maam rek a tax seen maam muy sëñ Tuubaa alxuraan la alxuraan la doon jëfandikoo lu muy def alxuraan la koy defal yàlla la jiital teg Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam alxuraan ay ngànnaayam ndax la koy firndi bi kat ba mu wéree te mu leer nañ mooy ba mu demee biroon ndar ñëpp dañoo suñu ñu ne ko mu ne wallahu ahad allahu samadu lam yalid walam yakun lahu kufuwan ahad kooku yaakaar naa ne signature am moo wóor bi puus ko kayit bi ne ko suñeel mu ne mu ne ko signeel moom laa lay signé mu ne dinañ daw mille kilomètres buñ ne dama ne doone dama ne mu ne na ngeen bu fa ne kon sëriñ bi yàlla rek la andal yàlla la àndal teg rasulullaay ab liggéeyam it ne lu mu am rasulullaay ci la ko amee parce que wax na ko ci xasida ne ko xayral baraaya yasal masaaya yaasal attaaya safi binaaya loolu ko wax kon jërëjëf Modou Mbacké mang ngi ci dëkk bi yaa ngi ci dëkk bi kóllëre gi mu ngi sax gën ndax lii gën a dugg bett na ma ndax dañoo ñëw daal ci man ne kër sëñ Modou Mbacke lañ jëm te yaa ne yaa yor sunu mag ma ne ah mu ne kon ma ne déet maa ngi yéen ànd xiiwal ga ñu fa teg ceegab basi la waa kër sëñ Tuwaak waa mbusoo bee fay ne ceegub basi na ku bañ a basi ba tuuru bu ko teg fi suuf boo ne tegg pepp ya tuuru nañ dem tolli wandoo ca pepp ya bokk ko kon jërë ngeen jëf Mbacke kontaan nañu ci ñu fi teew euh, ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax sëñ Maodo macha allah Guèye jërëjëf ak sa magu mi nga àndal ah di sama kilifa sama xarit te nu bokk toog te dama dégg say kàddu dégg imam magu wax kon loolu halset xol sedd na guy Maodo jërëjëf ndax yéen boobu nga yenu kenn ku ne bëgg na ko yenu muy lislaam rek ñor la Modou Mbacke wax na ko la ñor ak diine kon jërëjëf Guèye waaye Modou Mbacke yàlla na nga fan te Tayan te yan bi oyof lool tànk bi am fu mu tege ci lislaam rek te yàgg ndax samaam kat ba mu ci géej gi ijri dana afaftu ani la daay turan li wàcc man nafaahum li xayri sarmadan lastu at faw lu ko tubaab woon samaanu ijiri ilaa xaalilan juróom ñetti at yu manqué tuuti la bang ñoom ñëw ci waaxu Moussa Seri xasida googu la génne ci muqaddimaat afaftu ani la daay turan li wàcc man nafaahum sarmadan lastu at faw kon nu ngi jégalu ci yéen di ñaan jéggal ci yéen nu noo ngi jégalu ci yéen ngeen nu jéggal نوغي جيغولي تي بوك جولي كين كولا جوخ سما روم لوخو تاي جيغلان تاي بالانت وناجيني وجامي المسلمين ما ان وناجي والداتي امين يا الله اسالت البلاء والجهر والفخر والهنا ولقط يا مختار ما تها من خنا ولتهبنا وخوينا وكن لنا وابلنا اسن ختان ربنا وصليا على النبي وسلم سري بي نيان نينا وصليا على النبي وسلم وفر لي باجات كل مسلم جيرنجين جيرنجين بال ني ايغ جي كون xale yi yëg ñu continuer teram alxuraan ba ci kanam sooye bu te sëñ bi nag bu bu alxuraan dañuy jox sang bi mu yëg si ay kàddu ndax booba léegi mi ngi bëgg a yéyoo ko dem njaareem ndax ful ku baa kon liggéey bi ñu ngi woo soxna maam xadifa yi ak ñi mu àndal ñu ñëw ci liggéey bi tàccal ñu soxna maam xadifa yi ak ñi mu àndal ci liggéey bi soxna maam xadi feeñ tàcc ko soxna maam xadi fay tàcc leen ko waay tàcc leen ko aca waaw waaw aca doon leen waaw mhm. bismillah kër la góobu àdduna ay yoon yoon ñu dul topp ndigal yi duñu bàyyi tere ñoo fay tàbbi ñu leen di mbugal di leen sonal du ñu dund duñu dee ba faaw ndax bu ñu faatoo tàbbi foofa ku faat dangay nekk foo xam ne ba sàq la tudd foofee nag dana fa xam ne àjjana lay jëm wala sawara bu da leen di dundalaat gannaaw bu ñu dee kenn par kenn loolu mooy bési penc lan lan ñuy laaj. li ñuy laaj moo di lim daan digal ak lim daan tere bu noppee jéggi siraat. lan mooy siraat. siraat da aw yoon la muy jéggi ngir mën a dugg àjjana ku ko jéggi nag sa jeex na ana itam ñu daal ca biir sawara ndax siraat ca kaw sawara la nekk. bàyyi yi ngay wax kan moo ko wax. suñu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. jërëjëf Baye kon leer na si man wasalaam. jërëjëf yi. annonce buur bi subhanahu wa taala la xale yi doon jàllale mbokk yi mbokk yi sawara xale yi nee na ñiy contre quranul karim di xeex alquranul karim ñu wara jëm wal walxiyaasu billah téerab borom bi képp koy xeex waajal sawara mooy sa kër fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala sirati mustaqim wa innahu la zikru laka wa li hawmika wa sawfa tusalun mbokk yi bàyyi leen xel annonce buur bi subhanahu wa taala seexil xadim جلل ناي أرونس عام 1895 بني الإسلام فليس يوجب سواد الجسم صفاح الفتى والفهم درب نول أملنا جكي الخادم رسول درب نول أملنا جكي الخادم مصطفى بقي بقي يرم دونا الشيخ محمد مبكي سرين محمودان كما جب أملنا لنجكي dul la ko fay mukk ba ko ñu taxaw àjjana qur'anul karim mbokk yi ñu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 sëriñ Abdul Hakim moom Cheikh Mahamadul Moustapha moom Cheikh Mahamadul Bachir mi nga xam ne ci teewaayam ak ci ndigalam moo sabab suñu teew ci barab bi nuyoo boobu nag noo ngi koy teg ci loxo yi sunu kilifa yii fi teew di sëriñ Modou Mbacke ak sëriñ Abdul Xaadir Bousso ak boole kilifa yi ñu àndal jiitu ñu ci barab bii di gox bii nekk ñu nekk suñuy jëwrin nekk suñuy njaatige nekk suñuy kilifa nekk suñuy soppe ngir seenu doxin ni ma ko waxe keroog rekk soññ nañ ku ne ndax seen jëmm yii de njortu naa ne moom la alquraanul karim di wax ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المهوى سكون موي سن جمعي تدي لنجي في دجال نقمو دي فاتلكو القرآن الكريم توسكر فإن فإن فاعطي ذكرى وحند ذكر السابع من تنسل الرحمة تا القرآن جورتنا نمبولم لوي خيط لباخ تا القرآن لبوو danañ lottu lool ngir wax ci ngirum màggam akub kaweem waaye doy na sëkk rek ci li ñu war a dégg ci alxuraan moo di mbokk mu tedd mii lim fi wax léegi ci alxuraan lépp lu jaar rek loola gën lu moom ku ne xam naa alxuraan ci jibril alayhi salaam la ko sunu borom wàcce mu gën ci mboolem malaayika yi مجار في يونس صلى الله عليه وسلم مجن في مولم أنبياء أب مرسلي مجار في أو خيتم مجن في مولم خدي مواتي ويروي نك سهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى مجن في برمي مواتي قد ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر moo taxit mi min alfi sa loolu rek dafa doon sëkk ci ni mu mbokk mi waxee ci alquranul karim ci ay njariñam ak màggam akuk dayoom manees nañoo wax ne bu ñuy jàpp ci ay kàllaama yoo xam ne kàllaama yi sunu borom subhanahu wa la moo di alquranul karim mooy làmp bi nga xam ne mooy tegtal jullit bi yoon wi mu war a jaar ba mu gindeeku sunu borom subhaanahu wa taala defal ñu tawfeex nag ñu daje ci barab bii di dund alxuraan di ko fàttalikoonte ci sunu biir kon ña alxuraan na sunu borom di tëkk te ña nga xam ne bu ñuy jàng alxuraan dañuy dëdd du mooyu duñu ko bëgg a dégg way saa tulla alayhi ayatuna ولا مدبرا كأن لم يسمح كأن في أسنه وقرا فبصر بعصاب النليم نيغا خامني بو ني جانغ القران دون ام سوخلا ملني نيوكو ديغوت فاف ملني نيو تف ньоญ لا سون بوروم دي تكو ني مبوغال مو تارنيال نالين الك ньоญ ناك ملني ني جوتاي بي بوكو نيو تي تي توفيخ جو ني ام تي سيرن مودو مي ndax xam nañ ne ñooñ alxuraan ëllëg yowmal xiyaam bu ñu waajee ba génn melokaan wañee amee ak taar bañee amee ku bokkutoon ci ñoom dañ leen yee ci bis boobu kon nanu xam ne li ñuy jariñ tey ak ëllëg ci alxuraanul karim la ne barab bii fi sëñ Moodu samp ngir alxuraanul karim te jëmmi sëriñ bi rekk tax ngir liggéeyale ko ko tund wi am nañ ci tawféex wu rëy woo xam ne dama jële la dongo yi nekk ci biir waaye arxuraan dañuy jàng muy jolli di tas di deen du doon ngelaw loo xam ne day wër tund wi yépp nit ñi di ko noyyi loolu rekk sabab na tex ak tey ak ëllëg kon moom mii warees na koo delloo njukkal bu baax a baax a baax a baax gone ya nekk ci biir di dugg ci dëkk bi di tasaaroo ku bëgg a sarax gis gone goo sarax te ku ne xam na ne ëllëg am na ci cer goo xam ne ñi daan saraxe ñoo ko yeyoo te bu dong yi nekkutoon fii du ma ne deesut gis koo sarax waaye mën naa jafe kon loolu la yiwu dëkk bi la yiw tund wi la kon nan ko xam ànd ci ak moom ndax ñoom kat lu ñu xas sóobu duñ ca xaar kenn dañuy soogu rek dem ku leen ci fekk ñu ànd ak ñoom ku leen ci fekk tut ñu dem ngir seenu farlu ak seen yitte duñ taxaw di xaar kenn xëy na seen maam yu baax yi seen waajur yu baax ya am na ci melokaan woo xamante ni amee woon nañ ko ñoom ñi eh, ame nañ ko waaye seenuk farlu ndax waxi sëñ Saliou nga xam ne lam daan wax rek faaw dañuy ànd bu ma leen jiitoo taxaw xaar leen bu leen moo demee ba gisutuma leen ma ma wëlbati ko daje génn waaye ñii xaaruñu kenn dañuy dem ndax liñ soogu dañoo xam ne ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala rekk la dara jaru ko lu dul doon moom rek rek dara raxu ko lu dul alquranul karim kon nag day jaadu ñun suñ jëmmi bopp ñu xam loolu fa yéenee futti ko àndu caag ànd caag ñoom bu yàlla defee tawféex nekkuñu di jàng alxuraan wala ñu mokkal ko wala ñu di ko jàngale ñu ànd ak ñi nga xam ne ñoo ci ne ni ñu ko waxee léegi rek ba mujj ma moom sunu borom mën nañu cee musal waaye nañ def suñu jitte ci li nga xam ne mooy sax tey ak ëllëg te moo di téeréb sunu borom subhanahu wa taala bii ñu soobu ci ñun ñëpp ndax kat alxuraan li ma ko waxee keroog ku ne xam na melow la ci melaw sunu borom subhanahu wa taala ku ne xam na ne it téere yi ko jiitu yépp ñu ngi ci biir alxuraan te alxuraan nekkul ci benn ci biir téere yooyu ko ne xam na it jëmmi maxnaa yi téere yooyu lañu wàccee ci yónnante yooyu waaye alxuraanul karim jibril alayhi salaam ni ko sunu borom subhanahu wa taala joxe noonu la ko wàccee ci yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam muy waxi sunu borom kon loolu day jaar dañu xam ko te téye ko داوي القران يبارينا جانغلي كات القران يبارينا واي ني دوند القران تا اند تياك نيوني نيونا لول القران تيب دند لاي ني كيب كو خامني ساب خول ستنا ساب دند لير داغا سوغو تي تول القران بي تا مودي تولوب سيرين بي ناخ لوم ام تي لاكو امي نيم كو فونكي وون اموت لين لو خامني سيرين بي فونكي نكو نونو القران لا جيلون ديف كو موي نين جي كومام nekkoon ca nekkaloon ca ak ak njabootam ak ak taalibe yëpp kon nañ leen fottiku soobu ànd ak ñoom ci liggéeyub alxuraan bii ndax moo ñu jariñ tey moo ñu jëriñ ëllëg ku ne xam ne buñ ko defut it la ñu cay fekk dara ci àdduna jëru ko te àdduna ji mat na ba noppi ndax ku ne xam ne ni dañ koy tudde kër waaye du kër ab sanc la ndax nit ki li fii mi ngi ci biir waajuram ñëwagul àdduna mi ngi sanc amagul kër bu yàlla dogalee mu ñëw ci àdduna it mi ngi cib sanc amagul kër bu diggee ci biir bàmmeel it mi ngi cib sanc amagul kër keroog buñ dekkalee jaami yi boobu la am kër di jot minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratun uxra kon ñun suñ jëmi bopp nañu xam ne àdduna li fi des moo di soobu nekkal sëriñ bi ci alxuraanul karim bu ñu ko defee sunu dina jag sunu ëllëg dina jag ñoo ngi jéggale ci kàddu yi bu baax a baax a baax ndax sëñ Abdou Khadir mii daanaka bu jëloon kàddu gi yóbbaale ñun ñëpp ndax mooy sunu kilifa ñun ñëpp ci biir liggéey bi ñu fekk ko fi mu teg ñu ci aw yoon ànd ceeg ñun jiituñu ca gën ñu cee farlu wan ñu yoon wi kon moom rek kàddoom doo yoon sëkk waaye nag ñu ñaan ci darajey sëriñ bi saa borom bokk ñu defal tawfeex ñu yàgg fee daje jàgg ko ànd ak moom barkeb alxuraan yàgg ñoo topp ba keroog ñuy dajeeg sëriñ bi ëllëg yawmal xiyaam asalaamaaleykum wa rahmatullah tari ñaar xam ne yàlla yooyu nag kenn gi mooy sëriñ Xaadim Fay mii kenn gi mooy sëriñ Xaadim Diouf ñoom ñaar ñii nag dañuy sàkk ñoom kenn si ñoom mu daal di tari lenn ci alxuraan sëñ Xaadim Fay mii bi muy tari alxuraan man maa ko téel maag euh, sëñ Basiir maag sëñ Moulay Ndour bi ñoo ko téelu yaakaar naa euh, daaw la mokkale alxuraan moom lu tari woon na daaw ci naafile gi bis yu bëree bëri moo ko naafile ci naafile gi daaw sëriñ Xaadim Juuf mii démb la doon tari alxuraan daaw naafile na ren naafila yu bëri bëri naafila na ko waaye lépp lañ ko téyel kaamil lépp daal di koy tari yàlla dogal na maa ko yóbbu ca daara ju des jële ñu sax ci falaa ko boole sëñ Mulaay bii sëñ ko doon téyel kaamil bi yàlla dogal na ko ba mu jeex tàkk te amul ci benn gàmm kon loolu yaakaar naa lu kawee kawe yaakaar naa mu tari kaamil ci benn jotaay yàlla dogal na ko ci benn te moom ñii ay tuut tàmbale sëñ Xaadim bi ba mu ñëwee ci daara jeeg léegi dama naan ñeenti at ci lañ toll wala bu fekkee boobu sax nag ñeenti atam manqué ko ndax maa leen dalal ba ñoom ñaar ñi kon loolu du kawe rek suñu xaalis bi boo xoolee kii du jàng moom it yaakaar naa moom ngi toll ci ñetti am ak tuuti moom lay jàng ba du ñeenti at loolu it di kawe di kawe kawe te alquran ñi mu toll ni mu kawe nee naa mokkal alquran ak kenn leelu suñu borom ndax ñoom ñi am nañu la njëkk ci daara bi waaye ba tey jii mënuñoo mokkal alquran suñu borom nag moo koy def yaakaar naa sëñ Mor Fadilou mii di sëriñ daara xam ne li may wax ak mbokk daara daara yi xam nañ ne daara njëriñ ba ak yàgg ba tëbul nga mokkal alxuraan mokkal alxuraan moom jagleel ko suñu borom nit mën na soog lool te du ko mokkal da ngay gis boo xam ne sax da maanaam tappalekat lay doon te yàlla lay dogal bu xel ma neex mu mën a mokkal alxuraan da ngay gis boo xam ne bërëb pëskëb lay doon bërëbu bëgg lay doon bërëbu dogu yàlla dogal xel ma naqari la du mën a mokkal alxuraan kon mokkal alxuraan jagleel bu rëy la kon nag sant yàlla bi nga xam xamee nag dogal nañu dara bii ci béréb bi mbokkale fii ci béréb bi loolu de yaakaar naa bu yeewoon maam ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ne leen béréb bii de dem na ba ay nit di jàngi alxuraan di fi mokkale alxuraan yaakaar naa duñ ko gëm te loolu mag ñi ci dëkk bi am nañ ci seere ku mel ne sëñ Mbacke Faye ak sëñ Moussa Gueye am nañ ci seere te yaakaar naa xam ne sëñ Baye Salam ne nga xam ne moo doon tari léegi te àndul mbokk mi bés bële jàll ba ñu mujjoon def moom mu tari kon yàlla dogal euh, lii daal di amaat yàlla na yàlla dogal bu gën a bari ci daara ji gën a gën a gën a taw feex te lépp ñu leen di gërëm borom bi subhanahu wa taala ñoom ñii nag ay pour tànk la ndax kenn kii di sëñ xaadim euh, ju bi ma laajee baayam ñu ngi ma xamal ne 2009 la gën a àddina 2009 nag ba tey ji yaakaar naa bëri fukki at ak benn la jàpp fukki at ak loolu nag ci diggante bi man naa jàng xam-xam mën na bind kaamil diggante naa jàng te nag sàggane ko li ma ne jamono ji dafa dox wut nañ professeur boo xam ne moo leen di jàngal France ñoom ñii ku ci ne day jàng France tey jii boobu bis day ñëw bii di leen jàngal France ba yaakaar naa ñoom ñii ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax moom ci dëkk bi la def di professeur di jàngale ak tey sawar ci lool wax bu jot day ñëw ci daara ji di leen jàngal France ñoom ñii kon yaakaar naa loolu amul pertement te dañoo wax ne alxuraan boo xasoon mokkal yàlla dogal amadoo lenn ci àddina xamadoo dara lu dul alxuraan xamuloo dara lu dul alquran moomoo dara ci àddina lu dul alquran lépp am na benn bu yaakaar naa mooy di gën a kawe ñoom nag am nañu saxaada boo xam ne day firndeel ne mokkal nañu alquran saxaada yi incha allah bu fekkee danañu xool sëriñ si nga xam ne ñoom lañu sàkk ci ñoom ñu daal di ko jot waaye lu jiitu loolu nag dañuy jox sëñ Xarit Faye mu daal di jàngal ñu tuuti ci alquran karim incha allahu rabbi ñu daal di xool ay bokkam yi nga xam ne ñoo teew ci jaraay bi kenn ci ñoom bu jël seen carte daal di wax ci ñoom. ginnaaw bu loolu jàllee ñu xool bi ba daal di moom lenn ci alxuraan ñu jox lenn ay bokkam ndax bàyyam bi ay waayam bi ay bokkam bi su ko defee ñu jël seen carte di wax ñoom it dañu gisee jaraay bi ak lu mel noonu. boobaa nag xaaral ki nga xam ne moo war a def programme bi di sëñ Fallou Gueye sëñ Fallou Gueye xëy na heure bi dana fekk bu teew waaye yàlla daa dogal tey moom la ma sëñ Mor di wax léegi daa demoon ci concours boobu boo suivi ko di def ci Dakar dañ defoon yow invité ba war caa bokk waaye nee na mi ngi ñëw jox jox na ma léegi mu jox ko nee na incha allah rabbi mi ngi nii di ñëw kon nag ñu bàyyi waale xel balaa ñuy yéen ba bay ji bu fekkee ñii daay def dañu ci diggante bi xam naa sax loolu mën na ñàkk sëñ Babacar Ngom mi nga xam ne yàlla daa dogal béréb yi ma taxawaloon boo xam ne maa ko sosoon at yi yëpp ñu di ko def ba yàlla dogal ñu di ko def at mu jot si Babacar mi nga xam ne moom lañ jox wala jëwriñ ci wàllu fulk bi mu yor ko ginnaaw daan nañ ko def te it baax na jëlu ci di ko neenal donte da ciy ñëw jàng ci genn kayit sax ngir xam ne bañ a neenal bis bi incha allahu rabbi sëñ Moulaay bi nga xam ne moo daan jàng diwaanu Quraaniya bi bu jàng ci donte benn kayit la ngir bañ a neenal bis bi ki nga xam ne moo daan jàng fulkul maskoon bi xam naa boobu moom du jàng ko comme air la mu bëyigee la ko daan jàngee kooku bu barkeelu ci donte benn kayit la incha allahu rabbi bu xam naa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 واعلم ما تدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا بنارها رانا حيثتما ولا تقربا هذه السجدة فتكونا من الصالمين فاصله مسجدا أنا فارجوهما مما كان فيه وقلنا بدو بدي هدون ولكم في لد متقر ومتى إلهين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بدو منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كفروا بيتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بهدي اوفي بعهدكم وإياي فرهبون وآمنوا بما أنزل مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تطروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فتقون وسلام bismil ilahi ñu jubloo jaamu fi yeg fu mu doon ci ay wax ak jëf te ñaan buur nangu far nu jubal bismil ilahi ñu jubloo jaamu fi yeg mu doon ci ay wax ak jëf te ñaan buur nangu far nu jubal ma wax la nooy toftalee am njàpp boo ko xamul ubbil sa noppi yi tey dégloo ta def ci sa booy tàmm lim njàpp ak booy sangu ak lu mu doon nday joor ba ngay njëkke teg si càmmoñ ba dooru jubal te njëkke pas-pas te sellal ndox ma def ko fu set booy tàmm lim njàpp yow mi ñetti yoon raxasal galax ndikul ñetti yoo nit yow sarax ndiku wey te fiiru yoon wu ne sëlmul ñetti yoon la ngasal tarag tenqam ba ciy concom lu man ñetti yoon masa sa bopp masa say nopp ba léeg ta matal tarag say tànk bam tooyal sa ñaari dugar mooy ñaari làq ya raxas leen ñetti yoon te matal cangaa itam mi ngi ñëw fii nan ko jàng bu te saa war nga dal koy def te bul ko sikkal te ndox mu sell nga koy def yéene njëkk bu wér te faa wolof dafa lay siimit lu lay raasu xubbiku jàppum benn benn masa sa bopp mooy tàmbali njëkk ndongo moon la gisal te xobbi koy dalee ci jumbax ba egg si ci woom lu fay tilim sutti jam ndox lépp nangu setal nga door a ragg sa bopp ñetti tànk yu wér def ndox te tenqal sa nday jot te ca lépp wéel te def ko nopp caamayam ragg ba tamitam te ragg mbaggam ba ciy woomam tilim raxasal wetuk càmmoñam ak teg yeelam ya ragg gannaaw teg biir tegub dën yow miy réere sangu yëral yow miy di nu ñuy jàppee ka sangu ba xam jullee waral dee di sellal cër ko faral xamal ni ndab buñ ko dee sellal defum ñama tax ndab kay budul nangoo def aw ñam jarul di setal loo tabja tabja ba waxtu julli egsi jugal ndax julli yàggul du yàqal kenn wey ndigal bur yàlla moo ko faral njool maaka moo ko jotal moo xam la yoon wa xadiimit nee na nañ ko saxal kenn lañu ak ñi nga jërëjëf sëñ Xaadim पावन राज्य ñoom ñëpp Serigne Moustapha. lii firnde ak moom xolam ba tey day taxaw. Serigne daara yi kenn ci ñoom ku la neex nga soppi ci alxuraan dal di koy laaj mu wax incha allahu rabbi loolu bokk na ci lii firndeel ne mokkal na alxuraan. sama sëriñ sëñ sëñ Mor naa rek mu laaj ko kenn ci alxuraan incha allah rabbi teewaay bi ñu ngi koy rafetlu bu baax sëriñ bi di la sant di la ñaanal yàlla macha allah jërëjëf wax dëgg yàlla lim lim pare rafet na lool lim pare ci Robert Rane lim pare day dafa gën a rafet maanaam ak teew bi ci yoon indi saate yeeg matte yeeg yëpp macha allah loolu rek dafa rafet lool loolu rek dal na xel mu wëlbatikuwaat ni mu indee jàppit leeralaat ko yaakaar naa ne gone yi bu leen doon jàngale noonu bala ñuy egg ci téere yi rek dañuy dégg seen diine daal loolu it dara gënu ko rafet macha allah macha allah waaw xanaa ñu def ko kon ci digal rek waaye moom ñun suñu xel dal na ci moom dëgg yàlla suñu xel dal na ci moom suñu xol fet ba guy ci moom ci li mu waneegul xanaa na bare mu rogoy falamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna falamma samiat bi makrihinna arsalat فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن واخذت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت تخرج عليهن فلما هو دخل مع إليهن فقلنا هذا لله ما هذا بصر ان هذا الى ملك كريم قالت فسالكن الذي لم ترني فيه ولقد راوته عن نفسه فاتصمه فإنه يقول ما أمره الذي جنم ولا من الساقين قال رب السجن أبو إليه ما يدهونني إليه وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فرجع له ربه فضرب عن كيدهن إنه هو السميع عليم ثم بدا له من بعد ما رأوا لا يتزوجن حتى حين ودخل موسى نفسيا قال أدعو ما هي عليه أصل عمر وقال لا يخرج هي عليه عمل فقال أختي هبطت تأكل الطير من نبينا بتاويله إنا نريك من قال لا يأتيكما طعام الى ان نبطكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما لما علمني ربيع ميتا توسميت قوم لا يؤمنون بالله هم بالله قد هم كافرون واتقى سميت أبايا إبراهيم وإسحاق وإلى عاد أقاهم هودا قال يا قلت الله أو أجبتم أن جاءكم سكر من ربكم أو أجبتم ربي أو أجبتم أن جاءكم سكر أهيتم أن جاءكم سكم من ربكم على رجل منكم لين واذكروا وصلوا إجاركم خلفاء من بين قومنا وصاركم في الخلق بصرا وصلوا على الله هل كنتم تفلحون قالوا أجدنا نضل وضوء أنصر ما كان يبر آباؤنا فاتنا ما تجدنا إن كنا صادقين قال قد وقها عليكم من ربكم رسل وعلم تجلوني في أسماء سمعتموها أنتم وآباؤكم وأنا صلى الله بها من سلطان فانتظروا إني منهم لم المنتصرين فأنجينا ولدنا موه برحمة منا وقتلنا ثابت الذين كتبوا وما كان مؤمنا إلا سمودا اقتربت الساعة وانساق القمر اقتربت الساعة وانساق الأمر وهي رواية تنزل ويقول سن مستمر وكسبوا واتقوا أوام وكل أمر مستقر فلقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مدكر حكمة بارقة فما تغني النصر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى سن نكير وزن أبصارهم يقضي من الذات كانهم جراد منتصرون مودين إلى الداعي يقول كافر عطايون عسيرون أذبت قبل قوم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وسجرة وتعاربوا أني مقلوب فانتصر فاقتنع حواس صاحب ماء من قبره وفكنا له هيولا فالتقى الماء على أمر قد قدر وقفنا على سر ألوان وتسن تكيف آمنا آه، جزاء لمن كان كفرة ولقد تركناها آية فهل من متكل فكيف كان عذابي ونصري ولقد استمع قرآن للذكر فهل من متكل كذبت هود فكيف كان عذابي ونصري إنا أصنع عليهم ريان تطلع في يوم لسن مستمر ينصرون الناس رجل رجل نفمنا boo gisee lii bàyyi suñ suñ suñ mi bàyyi bi ma jógee ci moom la ma tariloo maanaam yuusikumullahu wa ila aadin falamma samiat iqtarabati saatu bi ma jógee njaarim ñëw suñ Mahmadan ñëw ma mokkal nga man ko yaakaar naa ko ñeent sama xarit lool lool lool lool dëgg yàlla bàyyam lii la ma defal moom moom suñu mulu garab bi mokk naa alxuraan jóge njaay rek moom la ma tariloo kon nag yow yal na yàlla defal la barke yow yal na suñu xaadim yal na yàlla defal la barke la bokk ci ñi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan bale wala ay na nga bokk ñuy jotle nag na nga feex ba bokk ñuy tasaare diine ji waaye buy jàng rek dem toog yal na yàlla defal la barke nga bokk ci ñuy jàllale ba diine ji jàll bu baax a baax jàll ba gën a law fu nekk yàlla na ko suñu borom defal wasalaamaaleykum wa rahmatulah xam ne mooy dëgëral alxuraan ji ne ci yow la nga jàng xam-xam góorgóorlu mooy tax nga xam bànneexu alxuraan nee la nga jàng xam-xam mooy tax nga xam wàcciwaayu alxuraan nee na la nga jàng xam-xam mooy tax nga xam maanaa yi ci alxuraan nee na la nga jàng am xam boo xam ba xam la wala day yedde wala day tëggoo wala day bégalaate te alxuraan yooyu yëpp bu ci ne am na ko kon nag yow góorgóorlu fexe ba jàng xam-xam loo xam ne boo ko xasee am nit mënut a am ci àddina lu gën a rëy li nga am te boo ko xasee am cër bu nit mën a am ci yàlla boo toogee ak moom bu dal di war warmaal ndax li nekk sa dënn muy waxi borom bi subhanahu wa taala kon yàlla yàlla guddal sa fan moom bi nag yàlla dogal na mi ngi fi ñëw jamonoy deux mille quinze la fi ñëwoon moom nag ba ay mi ngi wax ne deux mille kan la ko waaw euh, deux mille wax ne ci la gane àddina moom nag mokkaloon na daaw yàlla daa dogal ñi koy door ndax daaw dañu waroon def bis bi waaye daaw xam ngeen ne xat-xat yi ji ak yu xewoon ci réew mi moo tax jot ñu ko woon def yàlla dogal mbokk mi daal di mokkal daal di ko fay kon yàlla yàlla guddal sa fan te wéral la ñun ci daara ji day beq incha allah ngeen ñaanal ko. mu gën a góorgóorlu te ngeen ñaanal ko xel mi gën a sax ci toog ndax moom mokkal na lool nag xel mi neex na lool waaye ba tey xel mi dugg loolu nag xam naa seen jaare nee leen jaaxal maanaam ku dem ba mokkal alxuraan ba noppi nag mel na dekaftaa rek maanaam ñu dee rek nga nga nga taal daal départ loolu kenn ko def kon yàlla yàlla defal la nga bokk ñi nga xam ne nag dañu mel ne oto yu paan ci daara yi oto yu paan boo xam ne daal ay ajo puus damay dalal sama xarit di sama soppe di kenn ci man muy Serigne Modou Xaban Mbacké borom Kabsur Soomam di doomi Serigne Abdou Rahman Mbacké moom Serigne Ahmadou Ndimbe Xaban Serigne Xaban di kenn ci man sama xarit di sama soppe muy ku baax ku am yitte ndax lii yittee waral yàlla xam na ne ba tey jii wax ak yéen wallahi mën naa ko waat ci yàlla ne jëluma sama téléphone woo ko yëgal ko woo ma ko yëgal ko bis bi ndax bañ koo bañ ay coono ak xam-xati jamono ak lépp waaye yëg na bis bi daal di koy jàpp xam ne disam la xam ne mbokkam ma koy def xarita ma koy def te it ay ak yu mu bëgg bëgg ko mbokk bëgg ko lislaam moo tax mu jóge ba sooman fële daal di ñëw boole andi ay teraanga yu rëy rëy fii ci bâche yaakaar naa loolu lu rëy la kon sëñ Modou Xabaan ñu ngi lay bu baax a baax di bég ci yow bu baax a baax di ñaan yàlla mu guddal sa fan te wéeral say kër di barke di wax ne kontaan nañ trop trop trop trop ndax boo ma woo ne fi jëma bis bi ne tey la waaye maa ngi ci ñaanal yàlla defale rek moo doy sëkk ci man rawatina nag nga daal di tagg say yitte daal di ñëw loolu ak mbokk la ak xarit la ak yëg la ak bëgg boo bëgg alxuraan yàlla na yàlla kattanal la ba fa sa waajur ba tegoon tànkam nga teg fa sa tànk ba sa maam tegoon tànkam si Ahmadu lu nga xataan li mu mane woon ci tool yi kenn bañ la ko mënee ci diine ci barke Seexul Xadim akan mungkin kenn mënu koo ci boole ndax yaakaar naa si nga saaka wax na sàq fukk ak sàq juróom day bojj jox doo suñ borom ndax mbàkke kenn du sa morom yaa dee ba tiib ba tiib ba xiib bi tas àdduna ya, yaakaar kon ñun jam ci tool yi yàlla kian dengan la ko mënee ci diine ji barke Cheikhul Khadim kontaan nañ bu baax a baax di day doomi sëñ Abdou mi mu sëñ Abdou Gueye nekk di sa doom sëñ Issa Mbacke di doomi sëñ Ibrahima Khoudia di xalifa sëñ Amadou Mbacke nekk di sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Modou Xaban Mbacke moom sëñ Abdou Gueye kër ba ngay daw fekk fi nag sama sëriñ daara sëñ Mor Khary Gueye nga fekkoon moom sëñ Jiila Abdoul Khadir Bousso doomi sëñ Mbacke Bousso moom sëñ Mbacke Bousso ak sëñ Moustapha Mbacke mais ak sëñ Cheikh Fall ak mboolem ñi di fekk si ñëpp kon ñun ñëpp ñu ngi mancé dina dalal ci ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad kon ñu jàll ci kàddu yi daal di woo kenn koo xam ne moom it waxtu na alxuraan muy sëñ Xaadim Diouf incha allahu rabbi mu daal di ñëw moom it daal ñuy tar yi lenn ci alxuraan moom nag nee naa leen démb la naafile na daaw te mënoon nañ koo profité ndax suñu Abdou Bakar mii yi léegi mën naa ne ba koor bi tàmbalee ba daanaka mooy a te yàlla dogal na mosu mën a kam benn yoon waaye bu fekkoon bu ñu profité la ñu mën koo profité waaye yoon woowu nag la ñu yoon woowu nag ci la ñu sëñ moom ci la ñu jaarale bari bari ndax loolu moo tax alxuraan mën ci yow maanaam nga mokkal ko ay at doo ko tay wala nga mokkal ko diirum at waaye nga përëb përëb le ñaari weer ñetti weer ñu ne diw mokkal alxuraan yaakaar naa loolu du tax alxuraan di dëgër ci moom nit war naa mën a mokkal alxuraan lu mat at tali tari alxuraan tam tari kaay moom mii daaw naa fi kii door a tari leen daaw naa fi dena kon yaakaar naa mën nañ ko diyen daaw ne wala ñu préparé ko ne mokkal waaye bu boobaa dis mën na laa jural gàcce baa mu jural ko boppam ndax kii tay boo taxawoon ne mokkal na mu jox ko ñaari yoon benn a ndax ni ma ko wax waa mën na leen ko sax duñ mën a dem waaye nga def ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon day tëkkale na xamul daal bu dee benn yoon nit mën nañ koo jox bu bañ a dem ñaari yoon mën nañ koo jox waaye ñett yeeg ñeent boo ko defee mbir day tëkkale loolu ko bokkul kon ñu ngi koy dalal moom it mu ñëw tari ñu lenn ci alquran karim insha allahu rabbi kon suñu xaadim bismillah teewaay bi ñu ngi koy rafet bu baax sëriñ bi di la sant di la ñaanal yàlla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 كما آمن السفهاء أهلهم سواء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى أسياقهم قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون الله يستعص بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربت تجارتهم ما كانوا مقتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أراد ناره صعب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون سموم بكم هم فهم لاجون أو غزيب من السماء في كل ما فواب وبرغوا لجهن أصابهم في أسان ما سوى حصل الموت واللهم يكون الكافرين يقعد البرق يطفو أبصارهم كل ما على لهم لو في ويسع عليهم قاموا ولو سعى الله بسن بسم وابصيرهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اذكروا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأفراد والسماء بها وأنصر من السماء ماء Wa'udhu bi'l-masa'aban urum fiyya aswa'il-muqalib urum fiyya khalidun. xëy na dañuy jël micro bi moom it daal di jox sëriñ Jil Abdul Qadir Buso wala kenn ci mbokk yi moom it mu daal di koy tariloo lenn ci alquran ku ci gàtt amut ku ci yàq amut njàng mi rafet na mat na te it li mu jàng bu muy néewee gàttaay bi xamal nañu ne lépp it noonu rek la deme waaye nag gannaaw lii moo ci sa bëgg-bëgg ndax doomu aadama moom lëndëm na lëndëm boo xam ne ñun ñi xam mën nañ ñun ñi xam wóor nañu waaye am na ko mën naa jàpp ne la nee nag ci gannaaw moo waral lii lépp nga di ko ci def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 أو ما ملكت أيمانهم فإنهم خير ملومين من اتقي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راهون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من دين ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم قرأنا النطفة علقة وقرأنا العلقة مدقة فعلنا البرقة هزاما فكلنا الهزام العمل ثم عقلناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق قابلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأمطرنا به بلدا وأنزلنا من السماء بقدر فأسقنا في الأرض وإن على أصحابه لقادرون فأنزل لكم بجنات من نخيل وعنب حسبك جزاكم الله saa borom barkeel te saxal ko te yàggal sëriñ Modou ak ñi nekk ci gannaawam di ko jàppale ci liggéey jërëjëf asalaamaaleykum ko jox wàccuwaay boobu loolu rek day di sëkk waxuma la ak borom bi waaye juróom bi nga xam ne ay jamono xale yi manqué nañu téere am na ci bis xam ne moo dem jël ab kaamil daal di fay ngi ñu falaasi ko ngir ngir xale yi bañ koo mën a yàq te kaamil ba fay na ci lu mat cinquante mille ak yow ngir ñi daal di koy mën a defal kaamil boobu xam la ko mën a loolu it ak bëgg la yëngu ca sama daal bi bees yee nga xam ne maa koy sant tuddee ko Babou Salam keroog ba mu yëgee ne maa koy kii rek dafa jaayante ñaari tonnes ciment daal di ko loolu ak bëggam la ak bëggam la kon yàlla bu ko jagleelu ji fay na ko xolam te ak bëggam su ko suñu borom kat yàlla suñu borom kattan kon ñu jox sëñ Moussa incha allah rabbi bu noppee ñu daal di jox kenn ci waajuru si xaalis bi ñuy wax ci ñoom seen loolu incha yéen nag yéen yéen a moom bi muy yéen ñi nga xam ne yéen ay waajuru ñoom si xaalis bi ak si xaalis bi yëpp nañu fexe ne bu seen doom tàggat rek ngeen daal di fas yéene daal di ñibbi da allah rabbi kon loolu nag moom na ngeen ko suuraale da bàyyi xel baax a baax xam naa ko ñu na waaye ko def ñi nga xam ne bu seen doom taree rek ñu daal di fas yéene def ndax am na kuy ñëw di waxtaan ci daara tey bëgg nañ ñëpp lu ko ndax lu am solo lay doon day jaar na asalaamaaleykum wa rahmatulah bisimilah. di enjeu bi yëpp lu mbàkk ak ñi nga xamante ne bi ñoo fi teew liggéey bi ñu ngi nuyu ñëpp day jaar ñëpp day jaar ñi jaar bi jooxe liñ santoon ci bis bi te ñu def jële ci gën a rafet. ah di yëkkati nag cant goo xamee ne bii xam nga ni ki nga xam ne kii dafa nekk ci réew mu sori. lii am suñ borom atte njaboot bi nga xamante ne bi ci moom la amee waajur yi nga xam ne ñoo ko meññ ki ci doonal góor bàyyi ko moom mais moo nekk tey jëmmi àll bi nga xam ne mooy waajuru suñu xaatim yi kon moom mais ñu ko dippee nag moo yëkkati kàddoom dugal ko ci ab rajo xam le ne mu ngi yëkkati kàdduy yi jànkam di ma ko jottali loo sëriñ moo dul muy kàddu yoo xamante ne bi am naa lu ma wér ne li nga xamante ne bii noonu la ko bëgg xëy na sama xara la wax yéegul foofu waaye yaa ngi doon tudd sunu genn kilifa gënu fi nekkaloon ñu doon ko wax Baye Abdou Sow yàlla dafa àtte woon mu daan wax kàddu ko da daan wax naan jërëjëf day gàtt na waaye bu jëfut dara doo ko dégg kon Serigne Modou noo ngi yëkkati kàddu Serigne Khadim Faye boo xamante ne bii kàddu cant la ko mi ngi ko ànd ak ñëpp ñi nga xamante ne bii ñoom la bokkal ba ci man ñi nga xam ne maa di magam mu jox ma kàddoom ñuy di la ko sant cant boo xamee ne gii am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem ndax kat lii nga xamante ne bii moo di alquranul karim ñu ni benn araf di kese moo gën Seydina Muhammad rasulullah alayhi salaatu salaat salaam ku jël kaamil bi di naxante ak tout tànk bu toll nii ba dugal ko ci ab benn waajuram mënulaa sant ba daf koy kenn kon Serigne Modou dénkaayu fay neen mu ngi lay jottali ay jantam boo xamante ne gii gi gën a sell ci ay jant la te di la wax ne jazakallahu xayral jazaa'i yal na la sun borom tabaraka wa taala tànnal teeg boppam fayal la ko te bàyyi la fi te booleel la ci ak wér te defal la lépp loo xam ne yaa ngi koy sàkku ci alquran yal na la ko sun borom defal ndax kat damay wax fu ma toll ne Serigne Mouhamadou Mbacke mii ci sunu biir mu ngi mel ni docteur boo xam ne dafa bàyyi hôpital ba fekk malade yi te seeni kër di leen faj ndax nun ñii day nooy maladie l'islam ndax nun noo xamut li nga xam ne moo nu war ci yàlla mu bàyyi fa nun ña ko fekk Mbàkke Kajoor ak kër ba mu fa am wàcc ko ba ñëw dugg ci suñu biir xam suñuy melokaan ak melokaan yi ña foofee mu fekk lu fii nekk ak nun di jël lii di ko def si suñu njaboot bi wax dëgg ak yàlla mënuñu laa wax jërëjëf ba daf say kenn kon sant nan la ba fa cant yal na suñu borom yàggal sa fan te boole ci ak wér danoo bëggoon nag rek dolliwaat ñaari mbir yu gàtt benn bi ab leetar la boo xam ne ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci kaba te yàlla atte ñu def daayira sopp Serigne Touba di liggéey Serigne Touba ak mu jot def ay jàng la xam ne moo dese ca liggéey boobee te leen yëkkati xiwal yoo xam ne ñu ngi koy yëkkati def ko ci enveloppe bi